min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi musu ji seytaane di sant suñu borom di ko jéggalu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko safoo di ko ñaanal xéewal di sant sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom nga li ko gërëm di nuyu kilifa yi fii teew ci jotaay bi yépp di ko tàmbalee ci ki nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma mu sëriñ Afee bu al imaam di suñu nijaay yi ñu koy siyaare di siyaare waa daayira bu baax a baax ak mbooleem rek ñi nga xam ne teew nañu fii ci jotaay bi di jottali ay ziyaara yoo xam ne day tàmbalee ci Maolana Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fii te dolli ko wér dolli ko kattan di sant bu baax daayira bi ci jotaay yu am solo yi nga xam ne miin nañ ko weeru saa bu weeru koor ñëwee ñu di ko taxawee ak mbooleem rek jëf yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci barab bi di fi liggéeyal sëriñ bi féete fii féete taxawaay boo xam ne mutu yëpp la war ñoom ñu nekkal fi mbokk taalibe yëpp kon loolu ñëpp amel nañu leen ci ak cant di ñaan suñ borom barkel ko te def ko muy liggéey bu bu bu ñu nangu ni ko sëriñ Assane waxee euh, tomb bi ñuy waxtaane mooy ay ay bind ak ay jàngat yu ñu mën a def jëlee ko ci dundub Cheikhul Khadim radiyallahu anhu arda muy waxtaan woo xam ne kon moom la wax ne moom lañu war a waxtaanee muy tomb boo xam ne tomb bu am solo la liñ ci waroon njëkkee sax muy lay taay gi suñu asan ni mu ko tàmbalee daanaka rek xawes naa mën a doyloo loolu muy kon euh, tomb bu am solo boo xam ne am na solo ndax ñi nga xam ne dañoo jiitu ñëw ba jàll moo xam ay yeneen si lañ moo xam ay nit ñu baax di jël ay bind ci seen dund loolu lislaam da koo fonk lool yonent bi sallallahu alayhi wa alxuraan doon na ko daan na ko nettali léeg-léeg mu nettali ko ay nit ñu baax ba yàgg mu ne ko ulaayika allazina hadallah fa ma leen gindi moo leen jubal nag mën ngaa roy ci ñoom kon ñu baax ñu ñuy jàngat seen dund danañu dimbale ci suñu uh, ngir ñu mën a jubbanti suñu maanaam di jàngee ci suñu démb seen démb ñoom di jo mën a tabax suñ tey ngir joyante suñu ëllëg uh, loolu xam ngeen lislaam alxuraan soññu na ci julli ñi ba tàyyi uh, di leen wax ne leen nañu jàng fi ñi nga xam ne jiitu nañ laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab léeg-léeg mu nekk si yéen sallam dara ba pare ne ko ñooñu kat seen mbir ni mu demee képp ku kuy kuy xalaat rek mën na cee jànge laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ak yu dul yooyu di yuy saxal rek ne lislaam saxal na ni nit ñi nga xam ne dañoo jiitu woon nit ñu baax mën nañoo jàngee ci seenu dund ñi nga xam ne euh, seenu mbaax des na it mën nañoo jàngee ci seenu mujj kon lu am solo la tomb bi it am na solo ci waxtu yu ñu ko waxtaane muy jamono yoo xam ne àdduna sépp rek dañoo nekk ci ay crise yu wuute crise yooyu yi ci gën a fës rek mooy crise yoo xam ne crise delluwaay crise royukaay crise kenn ku nekk xam si fan ngay dellu ngir mën a ngir mën a euh, sàmm li nga xam ne mooy tax nga bokk fi nga bokk maanaam li ñuy wax sa identité ku ne li tax nga sàmm ko loolu euh, kuréel yu bari ci àdduna bi du Sénégal dong kuréel yu bari ci àdduna rek at yëpp dañoo ne ci jafe kon indi tomb bu mel nii ñu waxtaane si loolu dina am solo ci jullit ñi am solo ci taalibe yi ndax ku ne rek li tax mu mën a sàmm identité moy mu xam mbir mi li mënta ñak ngir bok ci lolu bu ko xamee ci la koy mëna a ba ba ba tax du ci gën manam julit bi li tax ba li nga xam bu ko do ci nek julit lolu faaw mu xam ko ngir doog mëna sam identité murid bi it faaw mu xam yi koy tee nek julit ak yi koy tee nek murid su len bolé yoy lay mëna sam ngir ak muritam mën ko sam kon di waxtane dunduk sëriñ bi di ci jëlee ilmi am solo la ci jamono ju ne rawati na ci jamono ji ñu ñu nekk nag tomb la boo xam ne ni ko sëñ dunduk sëriñ bi lépp ay bind la lépp ay ay ay jàngat la euh, moo tax waxtaanee ko yomb na jafe na yomb na ndax euh, tomb boo loo jël ci dundam rek mën nga cee génne ay bind kon loolu dana yomb ci tànn bi jafe-jafe fi muy nekkee rek mooy ban ngay jël ak ban nga dul baax ngay xam ndax bind yi day mujj bari ci sa kanam ba dootoo xam looy jël ak looy baax ni ko sëñ Assane waxee sëñ bi sëñ bi ci boppam waxal na boppam ne moom ak dundam dund dund la goo xam ne bu bu ko suñ borom xéewali xéewali bari la ba ne sax dund gi suñ borom da koo boole ci xar baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xëstu xayaatan laa turaa li xayri mujizatan baanat wax ci ci ci dundam gi ni suñu borom defee baanat li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya ak bay bi euh, fii kaw nii jaaral ba di ajaban lil kaw nii yooyu yëpp da ciy junj rek wane ne dundam moom suñu borom barkeelal na ko ko defal na ko ci xéewal yu bari yoo xam ne ku ne mën na ca jànge ku ci jàngee di nga ci di ci gisee mag suñu borom bi bu ko defé ni ko suñu asan waxee waxtaan wi ci ñaari tomb rek lañ koy def bu ñëkk bi moy ginaaw ay bind lañu jël ci dunduk sëriñ bi dina baax ñu teunk teunk bu gatt ci ci dundam boobu non bu ñu waxee gi li ci jublu suñ jugee ci lool rek li ci dess mom moy ay bind yu ñu mën a ci dundu googu lu ci xat ci waxtu rek ñu ñu def ko ci mom ni ngeen ko xamé maulana Cheikh ahmad Bamba radiyallahu anhu euh, di ku ñu miin koo xam ne mi ngi Cheikh ahmad Bamba radiyallahu anhu euh, des na ko woowee it wala dina wooy boppam sax abdullahi wa xadim rasulihi muy garaat ci moom di aw tur ci moom di dàkkantal ci moom euh, bëri na ay tur yu ñu koy woowee ni ngeen ko xamee xaadimu rasul al abdul xadim cheikhul xadim sëñ Tuubaa euh, ak yu yooyu ci tur yoo xam ne danañ ko koy woowee suñ borom tànnal ko ay waajur yu baax yoo xam ne ci askan bu baax lañ bokk muy sëñ Mamadou Anta Sali ak soxna Jaara Buso ñii ay nit ñu jub di ay borom xam-xam di ay nit ñoo xam ne lu jitu dem ak barki dem askan yi bok ci jub ak eh, jubal rek lañu ñu xamal kon ci askan wu teddu wu mel eh, noonu la suñu borom tanal mu feñe ci mu feñ jamono ci dekk bi ñuy wax Mbàkke sori wul fi xam ngeen mamam bi ñuy wax mam maram bi ñaaral mamam moko sañ ci mu feñ fa jamono ci nisu Sha'ban ci atum shara 1270 du sori ay 1854 mu feñ fa jamono mom sëriñ bi kon euh ba ni mu génnee eh, aduna ci ndiarém ci weeru muharram ci atum 1346 muy 1927 nga xam ne bu ñu ko natteekoon ci weeri ati wolof yi nga xam ne ci la daan nattal boppam mën ne dund na lu mat juróom juróom-ñaar fukki at ak juróom euh, dund gu barkeel bu fees dell ak njariñ yooyu nag fanweer ak ñett yu mujj yëpp ci loxoy tubaab bi la ko nekk xam ngeen ci bu tayee ñu génne ko fii subaa ñu yóbbu ko fee di ko fon di ko fontoo di ko foowee fanweer ak ñett yu mujj yëpp rek ci dundam ci seen loxo la ko nekk yóbbu mu def juróom-ñaari at ñu indi ko yàggu fi ñu yóbbuwaat mu def fa ñeenti at ñu yóbbu ko Jolof mu def fa juróomi at ñu yóbbu ko Njaareem mu def fa fukki at ak juróom-benn ba ni mu wujjee boromam ñëw fii ci Touba. kon ci dund gu metti googu la dund euh, gu xat googu nga xam ne bu ci bu réalisé woon bu réalisé wutoon dara sax des na ko mën a comprendre maanaam des na mën a des na ko mën a nangul ndax euh, wax xawtoon a mën a ne muy jëf loo xam ne lu ñuy waxtaanee ëllëg lay doon ci diggante boobu mu nekk ci ci ci loxoy tubaab yi waaye yàlla dimbale ko ba diggante boobu mu nekk seen loxo yëpp. defu fi lenn loo xam ne lu lu diine bañ la wala loo xam ne euh, sax wala mbañum rus dana ko dana ko ci jam sëñ bi diggante boobu mu nekk ci loxoy tubaab yëpp suñu borom defal na ko sutura ba deful dara lu ko diine ji yeme euh, bi mu tollee mu doonoon borom xam-xam bu mag boo xam ne xam-xamam da ko da koo jaar fi ko ñëpp di jaar bi mu tollee ci jàng suñ buñ delloo ci li suñ mbàkk bu sa wax euh, ni yaayam sëriñ bu soobee moo ko dalal moko dalal ginnaaw mu jox ko tafsir bakay numbe ko xamne ne maam la ci mom ndax soxna sawala mu jang ci mom alquran bay bëgg mokal tafsir génn aduna mu dem ci mu dellu keur waajuram bu góor suñu maam Mor Anta Sali fa laa galee mi njàng mi agge mu dal di jang mu eh, xam-xam diine yi lislaam yi ak yu aji ci yoy ba xaw ci asori jang na ci ñu bare bare ginnaaw bi ñu jox ko tafsir bakay numbe ñu jox ko eh, suñ sambatu ko xamne mo xam bu góor ay doomi lay lay mu wéyal di jàng ci moom nee na sax sëñ Maam Sall bàyyi na ko Saalum ñëw Kajoor lu ma at moom mu des ci sëñ Sàmba Tukulóor di ko jàng wax nañ ne ay risaala ak yooyu ci moom la ko jàngee ba ni mu ñëwaatee Kajoor fekk si waajuram di wéy di jàng ci moom jàng na ci ñeneen ñu bari ci digdigal boobu it euh, ku mel ne Cheikh Mahamadou Fadil ad yi mi nga xam ne am ci waa Mauritanie la bokkoon daan ñëw ci gox boobu wax nañ ne suñu jàngale ci moom rawatina lu jëm ci ay man ak ay balaaxa yu demee ci noonu xaadima jaxate kala sëñ bi jarignu tamit jëriñu si moom ci wal xam-xam waye nak neena mom moom jàngalu ko ab téere nee na nee mu ab téere mu di ko jangal waye dama daan bind ay beyt diko ko jox mu dima ko topatal su topé jubbante jubbante jox ma ba ni néma nak légui say beyt say bayit mënatuma gis ay njuumte légui dal li ñu ngay bind di jox may mokal rek loolu kon fofu la jaar ci xam-xam ba ñi amon xam-xam te jamono tek mom ñep séré né Sëñ Tuubaa borom xam-xam bu mag la te bu ko kenn séré wuto nit bindam min fi bax ku ko yër xam ne kii ki bind li mom borom xam-xam la bu gessu la bu xotal gessu la borom xam-xam la bu ràññee tamit loolu mom suñu borom defal nag ko mu doonon nit ko xamne ne it mi ngi feeñ jamono ci askan wo xamne askanu tasawuf lañ ci tariikha khadir la ñu bokk mu nek ci seen biir bi mu deme ba toll ci jël wérdu mu jël al wérdul xaadiree jëlee ko ci wajuram yeesataan na ko ci ñeneen nit dox ci doxin wo xamne sax askan mi bok man nañ ne mom rek lañ gis mu jox ko yitte jooju dem fu ne di ko fa yeesal fu mu dégg ñu ne am nañ ko fa mu dem yeesu fa wirdu wi dem ba gànnaar yeesal ko fa waaye silsila xaadiriya bi mooy moom fi mu jëlee wirdu yi fi mu jaar fi mu jaar ba àgg Cheikh Abdul ji nga xam ne joxoon na ko joxoon na ko euh, dox ci yoonu yàlla muy wéy ci noonu ba wax nañu sax yenn jamono yoroon na wirdu xaadir yi ak tijaan yi ak wirdu chaadili yi lépp di yitte jox joo xam ne joxoon na ko joxoon na ko loolu doonoon nit ku maandu ku bëri yërmande ku woyof koo xam ne ku dëdd àdduna xam ngeen jamono ji mu nekk njaareem daanaka Sénégal mën nañ ne sëñ Tuubaa mooy ki fi ëppoon doole boobu ndax ñi ëpp doole ci réew mi ñëpp moo leen yilif ku yilif maam Cheikh Anta yilif maam Thierno yilif sëñ Mandoumbe Cheikh Ibra Fall sëñ Issa Dieng ak ñi ma tuddut ñooñu ñëpp ku leen boole yilif réew mi nga nekk yaa fi ëpp doole te li muy yilif yilif ñooñu it teewut ci ay néegi ñax la dëkk di dund dund dund gam amoon démb ak bët ki démb rek ngir dëddu àdduna boo xam dëdd na ko bu ngeen xoolee yére mbubbam yi muy sol rek ñi ci mas a gis mbubbam wala ñu gis ci foto bi da ngeen gis ne yére yi sëñ Tuubaa yooyu yére yii la rek ay malikaan ak ay perkaal ak yii nii rek yii dong la ku ko mas a gis sax yi ci ëpp loxo lañ ko ñëwee wëñ la nga xam ne mbubb la daal day fexe ba sol mbubb noonu rek mbubbum sëñ Tuubaa kon fekkoon fii ci ñun ñu la ko joxee te waxuñ ne la mbubbam loo ko jël boo boo xamee ne moom da ko jël muy sa taxe àdduna ak àlaxira waaye boo ko doo ko jël ndax doo ko soxla la àggoon ci la àggoon ci dëddu àdduna yore lépp te nanguutatee dara yilif lépp te dara ñor ko ci euh, kon euh, nit ku maandu la woon nit ku dëddu àdduna nit koo xam ne ku daa jëmmal dëggi dëggi lislaam la woon euh, noonu la wéyee ci ci yoon wi ba ni ko suñu borom baaxee nag mu am tariixa boppam di di loo xam ne lu mag a mag lu rëy rëy loo xam ne man nga ne mbooleem lu mu doon sàkk rek ci la ko amee di loo xam ne ci moom lañ ko njëkk a déggee ci gox bi yëpp nit ku ñuul ku ku ku jëlee ci yonent bi sallam direct am wirdu boppam am tarixa boppam loolu moom fii fépp suñu tubaab lañ ko jëkk a déggee ci moom lañ ko mujjee déggee tamit nag loolu kon di lu rëy loo xam ne suñu borom baaxee na ko ko euh, booloo taxoon ba Cheikh Cheikh Sidiya sax bi mu koy woyee rek ne Cheikh Ahmadu ni'matun awlaha hasil xalaaiqa kullaha mawlaha ne suñ tubaab mii daal euh, xéewal la rek loo xam ne suñu borom moo ko baaxee mbindeef yëpp moom noonu la meloon ci ci nit ñi bi mu fi ñëwee ba li mu fi jógee lu jariñ nit ñi rek ci la nekkoon euh, daal leen xettali loolu nag daa ko bind daa ko wax daa ko daa ko jëfe kon foofu la jaar ci ci dund gu barkeel boobu dund googu nag ci lañ bëgg a jël ay ay bind ngir ma njëkkanteeg euh, waxtu wi rek su ko defee ni ma ko waxee woon bu ñu duggee nag ci tomb bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg waxtaan bi mooy ay bind yu ñu mën a jëlee ci ci dunduk sëriñ bi ay bind yu ñu mën a jëlee ci dunduk sëriñ bi mën nañ koo xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ay bind yoo xam ne dañ koy jëlee ci ni ni suñ borom doxeek moom suñu borom mi ngi jëflante euh, Seexul Xadiim loolu ay bind la ay bind gi ci yoo xam ne jullit ñi mën nañ sa jëriñ beneen xaaj bi nag di ay bind yoo xam ne moom ci aw melokaanam ak aw doxinam moom sëriñ bi ci lañ koy jëlee bu dee bu njëkk bi muy bind yuñ mën a jëlee ci ni suñ boroom jëflante moom bi ci jiitu mooy aaya bi suñ borom di wax ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ak faalun li ma yurid ne suñ borom dara tëwu ko te it lu ko neex def loolu ku jàngat dundub Cheikh Khadim radiyallahu anhu ñaari mbir yooyu day fës lool ci fi ko suñ borom jaarale ba fi mu ko mujjal ndax ku xool fi mu ko jaarale ñu ngi ko boloon ci ay noonu ni ñu amee woon kattan te lépp lu ñu xam ci lu ko mën a faat wala lu ko mën a lor ñu di ko def subaa ngoon guddeeg bëccëg te suñ borom aar ko sàmm ko ba mbiram mujj fi mu mujj da ngay xam ne li suñ borom waxoon ne inna allah ala kulli shay'in qadir ak wax ne fa'alu lima loolu mooy li dëggu ci ni suñ tubaab ni mu jëflanteeg moom mooy noonu yëpp ànd nañ bëgg koo lor waaye suñu borom ci kattanam ci cof ci coobareem bi nga xam ne lu ko neex mu def ko ci ci la ko sàmmee ba mu mu mu mujj fii nga xam ne euh, day day wax sax moom ne yoonu géej gi yëpp li ko waral mooy suñ borom daa am ñett yu mu ko bëggaloon rek bëggoon na koo jox daraja ju màgg ci moom bëggoon na ko def muy liggéeykat yoonu chancelam bëggoon na ko def mu doon kii xecc li ñoñam ñett yooyu la ko lool te su demutoon ko mën a am moo tax mu dem muy mu nekk abdullahi xadimu rasulihi nekk shafiu xawmihi muy sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi kon foofu bind a ngi fi ci bépp jullit mu xam ne suñ borom li mu waxoon ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ba léegi jugu ci mooy suñ borom lu ko neex mu def ko te tëlewu dara loolu bind la ñaareel bi ci ni suñ borom jëflante moom it des na ci jàngee ne li ñuy li alxuraan di wax ne wala aqibatu lil muttaqin mooy dëgg rek mooy mujj dëgg rek mooy mucc ndax euh, sëñ Tuubaa jëflanteem ak tubaab yi jéggi woon na kenn ku tudd Cheikh Ahmadou Bamba rek tubaab yi di ko génne dimension bi weesu woon na lool day mel ne diggante xëccoo la woon nag diggante dëgg maam ak neen tooñ ak maandu lëndëm ak leer diggante yooyu ñoo doon ñoo doon xëccoo ngëm ak kéefër ngëm ak wetti nga xam ne mujjoon na jéggi jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci waaye fi ñu ko jaarale fépp mujj nañ mboolem dañu ko doon bañal tey jii la gën a yaatu tey la gën a yëkkatiku lislaam tey dafa gën a sampe yoonu murid gi mu doon woote doon ko ko tere tey la gën a yaatu ba bokk ci yoon yi gën a rëy ci réew mi ak ci Afrique gépp mbirum sëñ bi tey la gën a yëkkatiku tey lañ ko gën a fonk tey lañ ko gën a bëgg te loolu donc lañ ko doon bañal xam ne kon loolu day wane rek ne dëgg lu mu yàgg-yàgg rek mooy mujj wala aqibatu lil muttaqin li suñu a wax ne wa inna jundana lahumul ghalibun lu mu yàgg-yàgg rek Euh, ñi ne ci dëgg ñooy mujjee ñooy mujjee ndam la moo tax biñ koy indi moom sëñ bi jaareem sax mu mu muy wax ñaari bay yooyu ne kat ñu ngi may indi fii yaakaar ne dañ may yàqal fekk xamuñ ne suñ borom daf ma ci defara ne ñëw gi ñu may indi jaareem nag suñ xamoon li ma ci jëlee danañ ma ko soxale ba duñ ma fi indi daan ne ndax ñoom ñaar yi lañ ciy jëlee buñ fi ñëwee seen biir da ciy jeexe dañ ci loro man nag ñaari yi ci jëlee moom mooy sama mbir da ciy sax ba faw te suñ borom daf ma ciy tarale ميرام المسير إلى جبل لدى رشش لو عاينوا سر ما في السير ما راموا فالسير موت لمن قد نازع وأذن وإنه لي إبقاء وإكرام ne moom ibxa ak ikram la ci jële suñu borom da ciy saxal mbiram muy wéy ba faaw da ko ciy teralit te loolu bi mu ñëwee njaareem ni mbiram yëkkatikuwaatee loolu ñëpp ñëpp teg nañ ci seen bët loolu di wane ne kon li suñu borom waxoon ne wala aqibatu lil muttaqin loolu it lu fës ci dunduk sëriñ bi la mooy lu mu yàgg-yàgg rek dëgg mooy mujj des na ci jàngee li suñu borom wax ni inna allah yudhi'u ajra al muhsinin moy ku jëf yalla fay la ku jëf rek suñu borom dina la fay ndax sëñ bi lim daj lepp ci ay coono muñ ko yamut ci muñ ko waaye sant ci suñu borom gëreem ko ci ci lim ko tek xamne moko ko tek te xamne da am lu ko namal moo mu jox ko lolu euh, mu muj mu sax rek ci boromam ba suñu borom ñu ñëwé indi fay gi mu ko fay moy li ñu wax ne man kana lillahi kana allah lahu maanaam képp ku nekkal yàlla rek faw yàlla nekkal la wax nañ ne sax Cheikh daan na ko daan na ko firi ne ne ne man kaana li kumu rek kaana kooka lëfoo waaw ku ku ko nekkal rek kooku dem la nekkal daan ne kon rawatina bu yàlla suñ borom mi nga xam ne nag moom moo gën a tabe moo gën a baax moo gën a maandu loolu it fes na loolu ci ni suñ borom jëflantee ak moom euh, noonam yii nga xam ne ñoom la dajaloo nit ñu doon ko moo xam ay sénégalais lañ moo xam ay africain moo xam ay tubaab wala naar ñi ko ci doon dëngee fiñ mujj seeni mujj feeñee nag li suñu borom di wax ne fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin mooy kuy tooñ faw dina am bés kuy tooñ bu mucc te kuy tooñ faw dina am te sëñ bi bu ñu toppee mbooleem ñim jëflanteeloon donte genn bëccëg lañ ko mas a tooñ génn ñu kaw suuf jógewuñ ci kaw suuf loolu na suñu borom toroxal ne fii ci kaw suuf laata ñu fi doog a jóge ñëpp ñëpp ñëpp suñ bay gee si li dajale na ci ab téere boo xam ne ci tubaab la ko bind am na yeneen bokk ci dajale leneen tuddee ko fansu keefu kana xibatu zalimin xëy na balaa yàgg dana génn loolu lépp di wane ne sëñ bi waa mboolem ku ku ko mas a dënge suñu borom mën na la ko fi ci kaw suuf laata nga fi jóg loolu nag am na ay bind yu ñu ci man a jàngee ñun mën nañ cee jàngee ne kat ndax boo xoolee sénégalais yi nga xam ne ñoo doon jaxase sëñ bi ak tubaab bi ñi ci ëpp ci ñoom mbir mi mu ngi déparé woon ci fiiraange rek ak coxor ak ñaan teewuñu seen xol jéemu ñoom moom seen bopp ba mu yóbbee leen ñu jóg def ay acte jóg dem ci tubaab bi jaxase leen ak sëriñ bi Euh, loolu xam nañ ci ay nit yu bari yoo xam ne nañoo tudd ay tur famille dëkk ñett ñoo xam ne mbir mi bi ñuy départ gisoon nañ suñu benn mbooloo ni ñu xaw koo fiire rek dem nañ mujj nag ba mënatuñoo tee seen bopp ñuy ruuxale diggante ak tubaab bi kon euh, loolu bind gis ci ne ak jullit war naa ko képp kàttanam lépp lu jëm ci coxor wala kiñaan wala fiiraange ndax da koy yóbbee ay musiba bu ko muy tuut wala ayaasu billah tubaab yi it bi jaxasaka di ñëwee wax leen loolu buñ teeyoo duñ dal ci kaw sëñ bi ndax kon danañ xam ne mboolem liñ leen doon wax dana jaxase moom dëgg waaye ñàkk a teey gi it moo leen yóbbee ñoom it ñu ñu daal di doxee niñ doxee kon loolu bind ngi benn waaye ñëwee rek ñu bala ngeen a def benn acte bala ngeen a wax jël benn position na ngeen na ngeen gëstu ba xam ne lii kat dëgg la te nii la demee te dinañ faral di am nag bari na ay girawaale yu am yu léegi ci àdduna si yëpp réew moo mën a dem yoo xam ne ci ay demale ak ay fekkale rek ci lay ci lay ci lay jugge buñ ko topé ma ci biir ay rumeur rek lay doon comme ñu koy waxee kon ñoo it fiñ mujjé togn kay di won nañ ci jàngate ci xamné kuy togn mom faaw dina am bés bi may mujjé ci ni señ bi ak ni suñu borom ak mom rek moy li suñu borom di wax né say allah ba'da usrin yusra moy dal euh, képp ku bëgg teraanga faaw di nga nangoo son suñu borom noonu mom moy ni muy ak jaamam ñëpp ngay jullit ngay leneen ku sonn gis résultat bi fii ci àdduna la moom boo dem jullit boo jaamu boo àggee fekk ko fa mooy li suñ bi di wax rek ne wax la bi anal majda laa yunaalu illaa bi xadril kat bi fii maa xaalu doo ci am lu dul lu toll ne la nga ci daj ci ak coono rek lu toll noonu danga ci am euh, moo tax sax moom mi junj loolu ci mbiram wane ne kat nabaxtukum maana laa kaddin bada lii xabla an ara lii xabla an ara ridan mu abada maa ngi leen di xamal ne kat daj naa coono yu méttee métti laata may am ngërëm lu sax li nga xam ne am naa ko waxaat na feneen sax ne nabahtukum maan ala katin bada li xam laa akuna baxran musbila maa ngi leen di xamal ne kat euh, daj naa coono yu méttee métti te tar laata may mujj mel ni ma mel géej gi duusu rek ci ay xéwal loolu lépp di wane ne jullit bi dafa da war a jaral maanaam dafa war a xam ne teraangay àdduna ak teraangay àllaaxira teraangay àdduna liggéey koy maye teraangay àllaaxira jaamu yàlla moo koy maye maanaam ku ku ku ku bëgg a faw nga nangoo sonn kon loolu ay bind la yoo xam ne mën nañ koo jëlee mu juróom yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci ni nga xam ne suñ boroom jëflante na ko ak Cheikh Khalil ñaareelu xaaj bi ay bind yoo xam ne nag moom day jógee rek ci doxin mi nga xam ne moom sëriñ bi moom la dox ni mu ni mu doxe muy ay jikkoom muy ay melo muy ni mu doon doxe yooyu moom yi may bëgg a wax moom yuñ mën a roy la du ay xar baax du ay kéemtaan waaye yu yu yu yuñ mën a roy la moom yuñ mën a roy la bokkut ak jël jëlub daal julli ci géej géej yooyu bokkut ak yooyu yii moom yuñ mën a roy la ci képp ku ko bëgg bu ko defee man nañ cee am ñeent yu bokkut yu jëm ci wàllu diine xam jëm ci wàllu jikko yu jëm ci wàllu kilifteef ak ñu ñilif ak nag yu jëm ci wàllu rek euh, suñu biir jëflante bi bu dee xaaj bu njëkk bi muy lu jëm ci wàllu diine ak xam-xam bind bu jiitu buñ ci mën a jàngate mooy Seexul euh, Xadiim ku xool dundam gépp gis ni kii ab jullit la bu fonk jaamu yàlla fonk jaamu yàlla mooy bind bu njëkk bu ñu war a jël ci ak dundam fonk jaamu yàlla jël boo ne jaamu yàlla jëlal naa farata yi waaye sunna yeeg ya ca aju fonk koor yi fonk koor yi gàtt naa fonk naafile yi gis ngeen sëñ Basiru sax wax na ci meneen baaxal Xadiim ne sëñ bi daan na julli ñaar juróom-benn rakka wala ñaari rakka ginnaaw timis yoo xam ne Baqara ak Aali Imraan nga tari bis set amul jëlal ci loolu bokkut ak yeneen nawaafil yeeg tahajjud di mi dafa ak yooyu di wane ne kon jullit bi war naa xam li ko fi indi taba ko fi te mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kër kër gi lu mu bari bari yëngu li lu mu bari bari yitte ji ñu fi indi woon baju fi mooy sàkk ngërëmul yàlla te mënee su koo sàkk ci lu dul jaamu yàlla ñaareel bi mooy ab bind bu ñu mën a jël ci loolu ñuy sàkk xam-xam lay gën a yitteel mooy nangoo euh, tegoo ay coono ngir ngir sàkk xam-xam maanaam Sëñ Tuubaa bi muy sàkk xam-xam da cee sonn ay coono yu méttee métti am na ñaari xista yu yu yéeme yu ci nekk li ne ñaari téere yi njëkk jëndal boppam nga xam ne moo ko jënd moomal ko boppam ci xaalisam nee na téere bi mu njëkk a jënd moom moom mooy téere imam Ghazali bi ñuy wax bidaayatul hidaaya na téere bi boobu ma nga ci Saalum toll ci njàng am njàngam sax soreegul yenn sore yi benn naaru gànnaar di ko jaay ne ko benn dërëm la ko jaay nee na waaye yoruma njëg gi nag da ko mo yoruma man na ko yoruma ko de waaye jaral ma ko léegi dangay ngay ñëw ñu ànd fu mu lijjanti ko rek ma jox la dërëm tëjal téere bi nee na mu ne ma waaw nañ dem sëñ bi nee na nag man sama aada da cee bokkoon du ma laaj kenn xaalis bu ma ñëwee fenn daal dinaa ñëw rek bu dem jotee ma dem buñ ma joxee baax na suñ ma joxutoon du ma du ma laaj kenn ndax xam ngeen laaj rek dafa baaxut laaj moom yàlla rek moo moo ci mata laaj pour yàlla boo ko dee laaj la nga mujj sopp yàlla bu mu sant sant yu gàtt loolu sëñ bi nee na bi ñu ñëwee ñu dem ci euh, kenn koo xam ne ak taalibe la woon ci si morom sëriñ ku yor bitig di jaay maanaam taalibe doon na jàngee ci moom daal nee na bi ñu ñëwee ma ànd ak naar bi ñu nuyu ko nee na waa ji bi ma nuyoo rek dafa tàggoog sa ko mer daal may xëcc yóbbu ma ci ginnaaw ne ma lii nga sol nee na yére yi ma sol xaw naa màgg daal mu ne ma yow doomi kilifa sa bàyyi sa waajur ni nga fi mel ni mu toll nangam ngay sol li waroo sol li nee na daal di génn mbubb yóbbu ma ci ginnaaw ne ma sol ko te summi mi nga sol sëñ bi nee na ma jël rek daal di sol summi mi ma soloon moom lem ko ko ci yoonam fa ma jaar bu may ba ñibbi bi biñ demee ba ci yoonam mu jëlaat mbubb moom amoon mbubb mu xottit moom solo daane naar bi ndax bëgg nga mbubb mu bees mi ma jël téere bi naar bi na ko bu ma ci jotee nga yaa moom téere mu sol mbubb mu xottit moom solo téere boobu nee na mooy bi mu njëkk a ci kaw suuf nga xam ne ci mbubb la ko jëndee mbubb muy bidaayatul hidaaya téere boobu nee na bi mu demee ba ci kanam ba am njàngam sori moom la mujj taalif tuddee ko tuddee ko mu la yéen sulur mu la yéen sulur téere boobu noonu ba mu njëkkoon a jënd xam nga mu la yéen sulur moom la yeesalaa tuddee ko mu la yéen sulur bi nekk gànnaar nee na ñaareelu téere bi moom it mooy téere fatal aqfal bu sharh laamiyatul afaan nee na loolu kajoor lay doon xam naa nee na boobu benn naar ko dinañ ko jaay ci ñetti dërëm mu wax la ma waxoon ko njëkk rek ne ko nañ dem ma lijjanti ko nee na ngi ànd moom ak maam Thierno ak sëñ Massamba Diop Samb nee na ñu wër nangami dëkk gox yi leen wër yëpp wax dëgg amuñu ñetti dërëm yi ñu ñibbisiwaat ak loxoy neen ba naar bi xaw na koo tooñ sax nag waaye bi ñibbisee suñ borom yombal mbir moom jot ci téere bi nga xam ne ñetti dërëm yooyu rek laata ma ko jox nee na wër na mi dëkk amu ci sëñ Modou Diop Massamba nettali na ko ne sëñ bi fekk na leen jaay nañ bis ñu toog benn jotaay moom sëñ Modou Diop Massamba ak sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Modou Moustapha nee na sëñ bi tagal leen dab toog na ci seen ba yàgg mu mel ne ko xaw ak kii ak ñoom ne leen di am na bis bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Moustapha ne leen am naag bàyyi kii joxoñ sëñ Modou aw Balla ak bàyyi kee muy sëñ Modou ma Massamba nee ñoom ñett ñu ànd di bëgg ñetti dërëm ñu wër mi dëkk te ñu ko am ne leen loola nu mu demee tey jii nii te suñu mot jom nee na jamono bi mu koy wax ñun dañoo seex ba soxlawuñ sax suñu waajur li ñu yor ñoom seex nañ ci kanamu sëñ bi nee na mun leen gis ngeen nii mbirum suñu borom ni mel nee na ñu seen ñetti bàyyi àndoon nañ bis bëgg ñetti dërëm mu tëleen ci nga xam ne kon coono yooyu yëpp da ko doon toggoo ngir ngir ngir xam-xam kon loolu it bind ngi ci ci ñu toll ci sàkk xam-xam ci ñu xam ne dañoo war a nangoo sonn ngir xam-xam mooy la mu waxoon maam Cerno ca kunkaati man rek ba mu jeex euh, kon kuy toll ci sàkku xam-xam rawatina jamono ji nga xam ne luxe bi dafa bari euh, téléphone yu cher yi yére yu cher yi yooyu yëpp luy luy fëkk luy fëkk jàngkat bi la jàngkat bi moom dafa war a xam ne rek daa am lu ko tax a jóg mooy sàkku xam-xam bu dee wërsëgam mu bàyyi ko ci loxol suñu borom euh, is rabbuna mutakafil risqa allasi yataallam loolu lu lu lu wér la beneen bi ci toppit mooy bind buñ mën a jëlee ci ñi nga xam ne ñoom jàng nañ ba wala boog jàng nañ ba mooy nañu dundal xam-xam sëñ bi bi mu sàkkoo xam-xam ba ba noppi yemut ci am xam-xam noonu bi yàngale waaye dafa dundal xam-xam ni mu ko dundalee mooy dafa taalif waa nit bu sàkkoo xam-xam ba noppi bokk na ci yi ko aw fi ko gën a xaar mooy mu dundal xam-xam fi ne mu ubbi ay daara di jàngale waaye mu taalif te taalifam yu bari yi ngeen xam ne di diwaan wax la mu diine rek dajale nañ ci lu mat ñaar fukki ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay mbir ci ay téere xam-xam bokkut ak min wasaaya bi nga xam ne roog raay ngeen woon nañ ko bokkut ak min xekam bi raw daa mi génne woon bokkut ak min fatawa bi nga xam ne Sëriñ Abdou Khadim Bousso bi moo ko génne yooyu yëpp ay mbind xam-xam la yoo xam ne Sëriñ ko bax loolu moom mm, bind ci ci ne sàkk xam-xam it buñ sàkkoo xam-xam ba sori war nañoo góorlu ci ci dundal xam-xam mën nañoo jëlee bind yit ci dunduk sëriñ bi ci ak ubbiku goo xam ne day ànd ak yow ubbiku ci ñëpp waaye boo xam ne nag yeewu da ciy ànd yeewu mooy man ngaa jël ci ñëpp waaye dangay ngay segg bu ñëwee nag euh, ku xool ci misaal lu mel ne Masaalikul Jinaan xam ngeen sëñ bi mu koy taalif dellu na ci borom xam-xam yu bari imam Ghazali yi sëñ bi da ko fonk di dellu ci moom bu ba ne sax borom xam bu ma jëlee ci moom dinaa ne xaala diw su ma nee xaala dinaa waxtu la daal ban la si imam Ghazali su ma nee xaala rek moom laa bëgg a wax ndax li ma jël ci li moom dana bari waaye teewut li mu koy fonk fonk di jël ci moom dafa am rek wet gum ko soxla mooy li li li ñooñam soxla loolu rek la jël ci imam Ghazali maanaam imam Ghazali li xam-xam bi bari bari li bind ci falsafa maqasidul falasifa taxaafudul falasifa ak beneen téere bu ndaw bi al munqidh min ad-dalal yooyu yëpp da ko faa bax dem jël lim soxla ci ihya ulumuddin indi ko xëy na léeg-léeg mu laal si xut ya indi ko dugal ko ci masaali ko jinaan ndax ñi muy taalifal ñoom lii lañ soxla lu jëm ca ca ca ca falsafa xam-xam fu muy jóge ci xel yi lay jógee wala ci cër yi wala ci fan la nekk yooyu yitteelu ko moo tax da ko doonu ne dafa baaxoon waaye ñii muy wutal soxla ko moo tax loolu it jàngkat yi baax na ci lool ñuy bàyyi xel seenu askan mooy lu ñuy jëggaani di ko indi na doon lu dëppoog li ñu fi soxla fii ci barab ndax loolu loolu rek ay mbëkkante lay indi ndax ku jëggaani ay xel rek dangay ngay indaale ay jikko yu bees ay jikko yu bokk dag yi ñu fi xamoon loolu bind la bu ñu mën a jëlee ci ci ci dunduk sëriñ bi waaye it bañ a sànq sa dund bañ a sànq sa dund fonk sa waxtu dund gépp nga fexe ba lépp nga feesal ko dell ci njëriñ xam ngeen ne sëñ bi bi mu feeñee ba ni génnee àdduna dund bi lépp lu barkeel la amul wenn waxtu ci ak dundam moo xam dafa nen du suba du ngoon du bëccëg du guddi waxtu yëpp da koo dundal ba mu fees dell ak ay njëriñ nga xam ne loolu sëñ Basiir di wax naan fa layluhu nahaar wa nahaaruhu nuur maa lil adyaat fi zamanihi nasib innama huwa li rabbihi tabaraka wa taala ne sëñ bi guddeem yëpp ay bëccëg la bëccëgam yëpp leer la ay caaxaan amul amul place ci dundu Seexul Xadiim radiyallaahu anhu lépp lépp suñ borom la ko jaglee loolu moo ko may jëf yu mag yi mu jëf ak ni mu ko teree def xam ngeen ne suñ bi tàmbali naa taalif te amul ñaar fukki at xam nañ ay bind Sëñ Tuubaa yoo xam ne bi mu koy bind amagul ñaar fukki at loolu yitte la ju kawe yoonu murit bii li muy rëy rëy ñu koy wane ci fanweeri at la toll fanweeri at fanweeri at ci la toll fanweeri at mooy ñi feeñoon jamono 93 li muy woote yoonu murit muy rëy ñaar la ko bind daaru salaam ci ay fanweeri at ak ñeent la ko taalif tubaa gi fanweeri at ak juróom-benn ci la ko taalif bi ñu koy jëlee fii di ko yóbbu ci géej gi ci ñeent fukki jëloon noonu déedéet te boobu fekkoon na yii ñu ko toppee moom mu def yëpp ba not sëñ tubaa bi ñu ay dëkk ay ay nit ay jëwrin xetti la ay ñu jeex samp ay daara yooyu defoon na ko doog ko dem ci géej gi nga xam ne loolu lépp ci ci ñeent fukki at yooyu la ko def te fi mu ne nii jamono ji ñu loolu ku am ñeent fukki at sax kan def dara wala ko laaj lu def manam ci gëna jamba da lay wax tabax na kër wala amna auto lolu du loolu du dara de ndax ku faatu tay bu soñu mirage ko lolu bokk rek réalisation kenn ku nekk ci ñun rek bu ko nexé mu laaj bopam mom bim jiddo ak légui lan la jëfël l'islam kenn ku nekk ci ñun fi ñëpp man na xalaat bim feñé jamono ak tay lan la fi jëfël l'islam ku sa xel demut ci dara lu leer rek xamal ne dara mom ndax kër mom taxul ñi wax auto taxul ñuy wax yooyu moom wërsëg la ñepp ci bokk yam ndax ñi di julli sax am nañ ko sëñ bi bi fi sëñ Mor Anta Sali xëyee mom bu génnoon aduna ci ngon gog manam bu woote wutoon yoonu murit tam mom liggéeyal na lislaam moom sëñ Tuubaa moom liggéeyal na lislaam la tamuy woote yoonu murit moy ak dundam dara neenu ci kon loolu bind a ci ci ne nit ki war naa fexe ba baña sank ak dundam baña sank ak dundam te fonk waxto bu baax baax ñaarel bi ay bind yo xam nañ ko jëlé ci ci wàllu jikko ci wàllu jikko ak melokaan bu njëkk bi mooy njariñul njariñul gëm yàlla ak doyloo ko gëm yàlla ak doyloo ko njariñ li mu am ci ab jullit ndax sëñ bi dundam gi yépp day wane jaam bu wakkeelu ci boromam ngëm yàlla gu mat sëkk moom la jóge woon ngànnaayoo wakkeelu ci suñ borom doyloo ko xoolul benn mbindeef du jàmbat kenn rafet njort ci boromam sàmmoon teg teg gi ñuy war diggante ma borom te lépp lu mu dogal mu neex ko bi mu demee ba am loolu ci la am pas-pas am yëg-yëg fas ci xolam gëm ci lu wér ci ne njariñ ak lor ci suñu borom dong lay jóge juguwul ci ñu weex ñi juguwul ci ñu ñuul ñi juguwul ci ñu baax ñi juguwul ci ñu baaxut juguwul ci soppe yi juguwul ci ñi nga xam ne ay noonu lañ moo tax mu doon wax man zanna gayra llaahi yughni aw yadur fa zaaka fi daarayni zu kaddin wa dur amna kenn ko mën a jëriñ wala mu mën a lor kudul yàlla suñu borom subhanahu wa taala kooku àdduna ak alaxira ci coono lay dëkk moo tax bi mu amee pas-pas boobu nag moom ci borom digganteem ak borom doyloo ko ci wér moo tax mu mujj amul benn mbindeef moo xam ne mu ne amul benn mbindeef mu muy ragal lastu axaafu durra xalqin baadama su amriya ila rabbi sama amul benn mbindeef moo xam ne daal maa ngi ragal ci moom lor ndax jël naa sama lépp teg ko ci loxol suñu borom bu ngeen xoolee bëri na loolu ay jëf yu mu jëf yuy wane wakkilu gum wakkilu ci borom wax na ne keroog bi mu nekkee ndar ñu koy bëgg a yóbbu ci géej te demagut fanweeri fan ak nangam yooyu mu fi def nee na toll na ay jamono magi njàmbur yi kilifa yi am ñu fa ñëw ci moom ne kat dañoo bëggoon nga may ñu ñu wax tubaab yi tinu la ci ñoom ñaan leen daal nag wax dëgg ñun xam nañ la xam nañ ni nga mel ñaan leen ngir ñu bala bañ laa bañ laa génn dëkk bi wax a wax seen wax yu rafet ba pare nee ma sant leen ne leen nag خلوا بيني وبين ربي وهو ارفع بي منكم واعلم بما هو الاصلح لي نانا ما لين سانتنا لين غرمنا لين واي نك باي لين ماك سن بوروم رك سن بوروم موما غنا ييرم سي يين تي مو غنا خام لي غن سي مان كون ген لين سي باي سيدنا ابراهيم تي لاكو ملائكه يوخات مون لين سن بوروم خام جو خام ني ماغي رك دوينا ما سك بوبو سيغ بي لو بو نون واو رك لو ген ndax ñu dañu ko lijeenti mu ne leen génn leen ci rek waay wax suñu borom loolu wakilu bu mat bu mat sëkk bu mu am diggante ak boromam rek moo ko may te dañu ci loolu gis ngeen ba keroog bi muy génn daaru mën naan te kenn ci seex si xaar ci kanamam ne ko may ñu rek jox ñu ndigal dimb lañu tubaab yi moom bala ñu defee génne ñii lay jël si dañ leen faat ñoom ñëpp wala ñun ñu faat ñu bañ jeex ñu waaye yow booy génn dooñu fi baax nee na sëñ bi ne leen sëñ basir ne leen sëñ bi ne leen inni lam arju xan wala ma axaf aduwan wa zimaami bi yadillah ne leen lii ma ne soxlawuma ci ab xarit ragaluma ci am noonu te sama mbir ci loxo suñu borom képp la nekk te sëñ Bachir nee na boobu murid niñ toll néewuñu doole buñ so buñ songoo woon ak yi dana nekk waaye murid néewuñu doole boobu waaye sëñ bi ne leen bu ci kenn dugg moom naka jekk liggéey bi bàyyi leen mag suñ borom rek lay wax mësa nangu kenn dugg ci moo tax Cheikh Sidé sax bi koy tàgg gis ngeen bi mu koy tàgg ci xasida googu ab Cheikh Ahmadu ni'matun awlaaha da koy ne sëñ bi daal xéewal la bu suñ borom baaxee mbindeef yëpp wax nañ ne xasida indi woon am na ku ko doon jàng ci wetu sëñ bi di jàng bay di sëñ bi di déglu muy jàngal di tari di tari ba mu agsee ci bay du naan yarda isa jalasat umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha ne kat moom lépp lu lu xew da koy gërëm da da ciy bëgg ndax day xam ne suñ borom a ko dogal wax nañu sëñ bi bi ñu jàngee baydu woowu dafa wax ne alaana madaxanaa daane waa mi ngi mi ngi may doog a tàgg nag nga xam ne li mu wax ci ne xéwlu suñ borom laa yooyu yëpp waxu dara waaye bi mu ne ku nangu lu suñ borom dogal la rek yëg na ne tàgg na ko léegi mooy ak jullit day day day day nangu dogal suñ borom tey day wakkilu ci moom kon loolu it bind la bu bu buñ mën a jëlee ci ak dundam ci ne euh, gëm yàlla ak wakkilu ci moom lu am njariñ la ci dundu jullit bi bokk na ci it yi ci mën a jàngee ci ak dundam mooy uluwul himma mooy yitte ju kawe njariñ bi nga xam ne am na ko ci ab jullit yitte ju kawe yitte ju kawe mooy lépp looy bëgg ci lu baax nga bëgg la ca féete kaw la ca gën a kawe rek xam ngeen ni sëñ bi léppam loolu la bi mu ñëwee dafa jël ba tam teg ko ci ne li mu bëgg a nekk mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mënoon naa jaar rek yoon wi baaxoon a jaar nekkub sëriñ yii fi yii fi ay am ñu muy jàngal waaye def ko daa lu gën a kawe loolu mooy li mu bëgg a doon mooy abdullahi wa xadimu rasulihi dak ci lu ne loolu moo ko génne fii moo ko yóbbu Gabon moo ko te teqalee ki njabootam moo ko def lépp ba ni ko suñu borom mujjee baaxee ko mu am loolu noonu ba mu mën a yëkkati loo xam ne nazaani minal walal baaxil xadim allamahum bi annani al abdul xadim ba ni ko suñ ni mu waxee ne suñu borom seppi na ko ci mbindee fi ber ko fële te it képp ku ci am tawfeex xamal na la ne la kii moom mooy al abdul xadim muy li ko taxaw a jóg mu yitte ju kawe jooju ndax bu mu ñëwee yitteem ju kawe fépp lu ciy fés gis ngeen loolu Sëñ Abdulaay di nettali ci bi sëriñ bi gisee ak yonent bi salaa sallam te xam ngeen ne gis yonent salaa sallam dañuy wax ci tasawuf ne julit bi bu gisee yenn façon jaharan ci lu ay nelaw moy setan mënatu ko yakal ci dundam mucc na ci seetaan ko yakal waye kon manon na doy lolo ndax sëñ fi mbok bokk lañ fi jëk degg dégg ku am loolu askan bi mbok bokk askan bu baax lañ ku ci am loolu ci moom lañ ko njëkk a dégg waaye gisee doy ko da mel ne da ko yok awma maa li ko sëñ Basiru di waxee si minan mu wax yenn façon ne ko lim bëgg moy bok ci ñi ñi and ak moom muy ahlu bat ñu wax ko la ca la cay tegee kat ku mas a toll fi nga toll mas na koo bëgg waaye buñ ko waxee li ko koy may da ciy génn ndax nanga mi natt lañ lay teg te boo delloo ginnaaw lu toll ne tarfatalaay da ngay ñàkk li nga amoon lépp waaye ci tëju kawe yi mu ne moom di bind du ruugi bay xam lu mu attan lu mu attanut waaye buñ ko mënee garantir ruugi moom jomam attan na ko buñ ko mënee garantir ruugi moom jomam attan na loolu loolu mooy yitte ju kawe dëgg-dëgg mu siñeente ak yéen sallam te loolu mu dox ci loolu ci la daj leen daj lépp xam ngeen loolu koor gi la ci korite gi ci la génn dem Mbàkke Baari ci safar nga lañ ko fi jëlee yëpp ko ci géej gi del si waatu Tuubaa loolu keroog dañu gisee yooyu yëpp mu daj ba suñ borom mujj ko fay mu ne addani yallaahu min ahli badri loolu mu ko mu signé woon yéen saa sallam mu mujj suñu borom defal ko ko ginnaaw bi mu ci doxee kon loolu lépp day fësal rek ne yitte ju kawe lu munta bi du bëgg lu tuuti loolu ne rek la ca gën a kawe lay bëgg bi mu ñëwee dafa fekkoon ñuy wax alfadlu lil mutaqaddimi wala maa asaha ilmu man taqaddama ne daal rek ngëneel li ñu jiitu yóbbu nañ ko moom bi mu ñëwee mu ne déedéet ngëneel ci loxol yàlla képp la nekk jagleelu ko benn génération bàyyi beneen jagleelu ko wenn xeet bàyyi weneen ci loxol suñu borom la nekk te suñu borom amul démb ak tey ak suba moom temps ci ñun la am waaye suñu borom amul loolu mu mu mu xam ne mu xam ne ne moom li jullit bi war a jàpp mooy ngëneel ci loxol yàlla la nekk te ku ko sàkk mu jox la ko mu nekkoon ca tarixa xaadiriya xëy xëy bi mu gisee Yonent sallallahu alayhi daal mbir yi ni mu ko gisee moom ñii nga xam ne ci Yonent sallallahu alayhi wasallam la ñuy jëlee moom foofu la bëgg a jëlee ci nit ñëpp maanaam ñii mënees na leen def ay nawle li ñuy baax baax moo tax bi mu ci jotee rek ci Yonent sallallahu mu wax ne sëriñ si kat ñi mu doon topp ñëpp ay weer lañ ak ay biddiw am nañu leer wax dëgg yàlla am nañ njëriñ waaye nag leeru biddiw ak ak ak weer bu ñu koy wax moy jant bi dafa génnut waye jant bi su xasee génn soxlaatuñ biddiw ak weer te nee gis na jant bi te jant bi mooy yonent bi salaa salaam mu ne zahadani tuluu shamsin an nazar ila nujumi fi samaai wal qamar jant bi génn ko tax ba xoolatuma weer yi ak biddiw ndax soxlaatuma leen daal dox ci loolu nag wéy ci wéy ci ba ni ko suñu borom baaxee daañu baax ñi li ñu ci seen i tarixa mu am ko ndax xam ngeen tarixa yombut tarixa yi am ci ci ci alamul islam bi yëpp bëriwut fu ne daxawaat ci biir tarixa yi ñoo bari maanaam benn tarixa bu am ay woote ci biir loolu moo bari waaye tarixa yi bëriwul yu néew a néew la sax bëri na sax yu ñuy woowee tarixa yoo xam ne ay mu ne ci loolu kon moom sëñ ba suñ borom defal ko tarixaam muy kenn ku njëkk xam ci nit ku ñuul ko am moo tax daana wax taalibe ne leen lan ngetu la sanadu ko buum gi leen di jokkal yéen saa salaam du gudd ndax da ngeen naan man mii ne moom ne leen buum gi leen di jokkale yéen saa salaam du gudd ba fi mu ne nii mën nañoo gis ñoo xam ne seen diggante ak yéen saa salaam ñaari nit fi dox ñaar maanaam ku mel ne sëñ Muntaxa ci sëñ Basiir la jëlee mu jëlee ci sëñ Tuubaa mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom gis dafa mu ne gis ci suñu gox yi yëpp ku am lu yées juróom-benn jàpp juróom-ñetti nit yombut te sëñ bi la leen doon wax ne leen lan ngettawula sanadukum bu ngeen ci jàppee buum gi leen di jokkale Yonent bi sallallahu alayhi du du gudd taxawaay boobu mu amoon nag ci xam le ne ngëneel ci loxo suñu borom la ne benn jamono moomuñ ko beneen ñàkk ko amul wenn xeet bu ko am weneen ñàkk ko loolu sëñ bi da koo jëf ba pare da cee fësal ñaari mbir yu am solo maanaam li ñuy wax ay rupture ay révolution yu am solo la ci def benn bi jëm ci wàllu xeet benn bi jëm ci wàllu jamono ndax bi jëm ci wàllu xeet waaw ah, kay kon ñuy nuyu sëñ Hamza moom sëñ Sonia bu di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam kon ñaari ñaari révolution yu am solo la Cheikh Khadim def ci jëf jooju mooy fësal na ci bu baax ne ngëneelu suñ borom amul benn xeet wu ko moom bàyyi weneen ngëneelam it amul jenn jamono ju ko moom bàyyi yeneen mooy li mu wax Masaalikul Jinaan ne euh, fa laysa yujibu sawaadul jismi safaahatal fataa wa suu al fahmi ne dar wu ñuul kat tekki wut xel mu gàtt wala ñàkk a mën a àgg fenn fi ci xam-xam xam ngeen ci beneen masaaliku jinaan bi sax waxaat na fa lu gën a kawe ne fa lay su yujibu sawadul jismi adama fawzin bi azimi qismi nekk nekk nit ku ñuul kat téewuta mën a am maqaama ak daraja yu mag ci suñ borom loolu sëñ bi dagg ci ay xalaat bu juunu bu nit ñi amoon ci ci ci wàllu der bu ñuul mu mu mu wane foofu ne mbir mi ngëneelu suñu borom loolu néew ci ay der bu ñuul ak der bu weex ak der bu xonq néew ci loolu waaye mi ngi nekk rek ci pas-pas ci yitte ak ci góorgóorlu mu defaat beneen révolution bu am solo ci wàllu temps mooy li mu wax ci masaaliku jinaan ne wala tuxassis fadla rabbin xad ala lisi taqaddumin faqat fatajahala is rubbama uri fatan muaxara maa xaaba am man qablahu wa asura nekkat ngëneelu suñu borom bu ko jagleel rek ñi yàlla foog ni ñi mujj mënuñoo raw ñi jiitu woon daanne déedéet léeg-léeg sax mën ngaa gis ci ñu mujj ñi am ci daraja ak maqaama loo xam ne ñi jiitu woon sax amuñu amuñu lu toll noonu loolu euh, lu am solo la ci sëñ bi def xam ngeen sëñ bi mooy kenn nit ku ñuul kuñ xam ku am tarixa boppam boo xam ne moo ko moomal boppam bi mu ñëwee dafa fekkoon nit ku ñuul ñu di ko xeeb di ko xeeb di ko xeeb ba am ci nit ñuul ñi ñoo xam ne dañoo dañoo mujj xeeb seen bopp jàpp ne dañoo xeebu ñoom maanaam nit xam nga nit da nga ko xeeb ba mujj mu jàpp ne daa xeeb loolu dafa mujjoon am ñoom dal ci nit ñu mel ni sëñ bi bi mu ñëwee moom mu dagg jéng yi dëpp mbir mi doxee weneen dox fent yoonu boppam wéy ci ba mujj ñëpp nangul ko mu nek imam ci bir jullit ni ba ngeen di gis wa madinatul munawwar joge ca xiyaas ñëw fekk ci ko njaareen di sakku ci mom ñaan mom mi nit ku ñu nek fi ci senegal ay nit jóge ci wetu barab bi sallallahu alayhi di sakku ci mom ay ñaan mu jox leen lo xamne sax dana leen bu ngeen demee na ngeen ko wekk ci barab ba muy lam leen njëkk jox naala ba lolu yitte ju kawe moo ko may bi yi nga xamne luy ay julit mu na ñew di sakku ci moom dimbal bam di leen dimbalé ci lu ben benn ñaar ba ci dévaluation bu ko amoon mu joxe 500000 dimbale leen dimbale waa fii ndax xaalis bi waa fii koy jëriñoo at moom noonu président France cinquante mille la joxe bi siñ bi joxe cinq cent mille te jiite France cinquante mille la joxe te boobu boobu mi ngi fii ci Sénégal waa li lim leen doon dimbale kenn xamu nu mu toll pes boobu mu joon am si bi gaalu xaalis la ne noonu gaal waa ko Cheikh Sidé ba léegi gaal gi ngeen ñoom xottu gi mu ko yoon ba mu fees mujj àgg foo xam ne ñëpp lañ koo jàppee imam ci biir diine si muy doon doon bokk ci ñu mujj ñi doon nit ñuul yi jëfinam taxawaayam yitteem ju kawee tax na ñëpp jàppee ko imam ñëpp jàppee ko kilifa ñëpp fonk tubaab bi ba ci seen loolu ñu taxawaloon conseil conseil xawma lan des affaires musulmanes boole woon nañ sëñ bi muy kilifa julli ñi donte mosu caada mosu ko yittew si Ahmad bin Beddi ci kilifa yi tijaan yi gën a mag ci Mauritanie la ak àggoon na ci wóolu sëñ bi donte du taalibe wóolu sëñ bi xam ne kii li muy woote dëgg la ba mu yónnee ci moom ne nee leen sëñ bi nee leen ko na ma nuyul yéen bi sallam na ma nuyu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu te bu ñu ma fayee na ma ko jotali sëñ bi teg ci ab diir yónnee fa ne leen ne leen ko yónni saa salaam mi ngi koy fay Cheikh Ahmad Tidiane mi ngi koy fay. doomam Cheikh Mouhamadou Lamine nee na Cheikh Ahmad Bamba dañut ba ni mu génnee àdduna saa bu ci xel mi demee mu yéemu ne cey ngir xam na ne li ko suñu bopp bi muy génn àdduna sëñ bi da cee def lu yéeme doomam Cheikh Mouhamadou Lamine nee na dañoo xëy Cheikh Cheikh Ahmad Bamba ci guddi gi la génn àdduna. suba teel lañ xëy ndaw yi sëñ Tuubaa ñëw indaale ak xasida ne sëñ bi leen yabal nañ ñëw fekk si denc te yëgal yëgalaguñ ko kenn mu boole ci ak xasida wax ci wax yi doy waar ne Cheikh Ahmad bi muy génn àdduna seen naa Jibril wàcc na ànd nag nangami malaaka yu bari ñu ñëw ngir terale ko loolu ba gunge ruum gi yóbbu ko ci kaw daan ne te loolu mi ngi ko amee rek ci menn mbir moom Cheikh Ahmad bin Badi mooy li xusni zannihi bil abdil xadim yi kaana lahu bi kalamihi mooy rafet jot bu rafet jot sëñ Tuubaa sëñ bi boole ci xasida la xat jaa ruuxul xulusi waxoo mu farriju bi jundil azim ne xina ahmadu yaxruju li ahmada indallahi ma kaana yartaji lahu baana xayrun baabu lay sa ba xasida gi jeex ne loolu lépp mi ngi ko amee ci rafet gi mu rafet njort la ci sëñ Tuubaa radiyallahu anhu wa arda kon loolu lépp ay bind la yu yuy fësal euh, sëñ bi euh, yitte ju kawe yi nga xamee ne amoon na ko te mu bokk ci bind yi nga xam ne jullit ñi dañ ko war a jàngal seen wala watani taalibe xam ngeen Cheikh alfal kero bi mi ñew di jéblu ci sëñ bi ci mbak tajor fofu la yitte sëñ bi njëkk feeñee bi mi ñewé ci sëñ bi wax ko wax ju reuy ne ko man de sëriñ bi ma doon wër buma ma ñëwoon ba gis ne fii mooy barabam ma xam ne fi la sama yitte sama pass pass dina may lima bëgg ci moom am na sëñ bi ne ko man de yoonu bi lay roy limay wut ci mom la koy wut xam gi ma xam ne asaman si masako tim ben bis suuf si masna na cee ben bis lool doyna ma sekk ci lima bëgg ci moom ko am Cheikh Ibra xam ne kii moom mooy waa ji mu bàyyi mu jiitu mu topp ci ginnaawam mag ñoo ñu toppoon ci Sëñ Tuubaa loolu lañ ko toppoon da leen a jommal ci lépp ñu xam ne moo leen fopp ci lépp ñu bàyyi ko mu jiitu toppuñ ko toppee wuñ ko juddu toppee wuñ ko xam-xam toppee wuñ ko alal waaye dañ koo natt ci lépp gis ne moo leen ci raw ci pas-pas ci xam-xam ci gëm yàlla ci doyloo yàlla ci wéetal ko ñu xam ne kii mooy waa ñu bàyyi ko mu jiitu ñu topp ci ginnaaw yitte ju kawe jooju nag dañ ko war di jàngee ci sëriñ bi feeñee ci loolu ma doon wax sànq bi ko yéen sallam feeñee ci Daaru Xuddus lu mu wax mu ne ko bëggul lii li mu bëgg daal mooy bokk ci kuréel gi topp ci moom rek loolu yitte ju kawe fës na ci loolu te mënoon naa doyloo rek li gis yéen salaam te xam ne ne askan bi ma am maa ko ci njëkk am bu ko doyloo woon mu doy sëkk nag bu ko doyloo woon mu doy sëkk kon bind a ngi foofu ci bépp jullit ci mu xam ne dunduk sëriñ bi war nañ cee jànge yitte ju kawe beneen bi ci topp mooy bind buñ mën a jëlee ci ak dundam ci wàllu mbaax ak rafet jikko loolu nag dama ciy jël rek seere soo xam ne ki ko seere du jullit moo may gënal sax may jël ab jullit wala koo xam ne ci waa kër bi la bokk Antoine Le Seff benn tubaab la woon bu nekkoon jaay boo xam dañ ko indi woon rek moom yitteem moo doon mu xam Cheikh Ahmadou Bamba bi li muy day sëñ ba suri ne léeg-léeg sax bu ñëw day bett sëñ ko bëgg a bëgg koo bett xam na ci fu mu koy fekk na léeg-léeg am ñëw daa am ku mu àndal kooku di dajj sàkketi muy dugg nee na àggoon nañ ci ñoom taalibe yi ñenn ci ñi taalibe ne sëñ bi ñaanal yàlla mu jëlee fi kii ndax ni mu lay def neexuñu nena na sëñ bi muuñ ne len ki suñ borom daf ma xamal ne dafa ñëw rek ngi setal sama bir nee mu jaaxal la ndax ki ni melé ba pare di setal biram waye bimu démé ba noppi ba bind rapport bi bimu xam ci sëñ bi rapport bu gudd la am ci lu ñëw ci téré Omar ba bobu bimu mu rapport lañ xamné li la sëñ bi doon wax ci bir rapport la ci wax ne Cheikh Ahmadou Bamba mi nak li ne ci mom ci jikko rafet ak xol bu sel ak yeneen ñëpp aw yiw mo xam ab nonam wala xaritam àgg na ci fo xamné mbooleem ku ñuy tudd ci nit ñi jiitu woon buñ ko ci méngale moom mu jiitu ko ci moom mi daane ñi ko gën a réere gën a réere gën a réer ci nit ñi mooy ñi nga xam ne mas nañ koo tumaal benn bis ne bëggoon na daray nguur wala daray àddina lii ki ko wax dub jullit kon loolu mooy wane ne jikko ju rafet jikko ju rafet jullit war na koo fonk saa su ne xam ngeen sëñ bi wax na ne bi mu nekkee Gabon am na kenn ku nekkaloon ci tubaab yi ci njiit yi nekkoon koo xam ne mbaax gi mu xam ci sëñ bi taxoon na bu buy dem mission waa këram sëñ bi la leen dénk koo xam ne da ne dafa def dara ba nga jàpp ko indi ko fi ba pare booy dem di ko dénk sa waa kër loolu min ci mi nan loolu lépp di wane ne euh, mbaax ngi suñ borom da koo bindaale mbaax da koo bindaale xammee wu ci ku ku ku ko bëgg ku ko bëggut bokk na ci bind yi ñu mën a jëlee ci dunduk sëriñ bi it mooy ak nite ak dégg sa jamono loolu dafa fees dell ci dunduk soo xale maanaam xam jamono ji lim laaj nga def lool sëñ bi bi mu ñëwee fekk na ay jàmbaar yu mag jaafe xeexal lislaam ba sonn bi mu ñëwee daanaka mën nga ne jullit ñi ñaari xaaj lañ woon yi gën a fës ci kilifa yi ñu gëm ne dañoo war a xeexal tubaab yi ñu jël seen gànnaay ñooñu tubaab yi faagaagal nañ leen ñëpp ndax doole tolla wut ak ñeneen ñu gis ne biñ màndaxee diggante ceddo yi ak tubaab bi jàpp nañu tubaab yi tane ndax lu métti bàyyi nañ leen ñu léegi def yëfi fa ñu maslaa ñoo ci gën a bëri xëy mën naa benn benn yu génn bi moom bàyyi ñaari yoon yëpp jëlum ngànnaay waye masaw do tuba bi xal yoonu boppam mo bimu gis ne tuba bi jitt na ci ngànnaay dafa dem jiitu len ci xol yi ak ci xel yi mo ci walu xam xam-xam xam ne loolu benen benen benen benen beneen résistance la bo xam ne bu pacifique la du jël ngànnaay waye buñ démé ba pënd bi wuré rek moy ëpp le résultat motax tax mu ne inni yujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan qadiman wal muhaymin shahida na xamone na ne mbiri fofu lay mujj motax tax ne bëri rek dafa samp ay daara samp ay nit seexal ay nit tasaar leen ci réew mi mooy waral bi ñu ko yóbboo ci géej gi ba foog ne mbiri jeex na fekk gars yi ñu ngi liggéey ci suuf bu ñëwee day mel ne benn acier buñ teg ci biir weñ rek bu yëkkatee lépp da koy topp moo tax bu ñu ñëwee bi ñu ko indee daar mën naan rek mbooloo mi toll noo xam tubaab da leen jaaxalaat ñu daal di daaw dalaat ci kawam yóbbu ko gànnaar kon loolu it bind la boo xam ne nit ki war naa xam ne jamono ju ne rek rawatina ku bëgg a xeex say àq ak sa yelleef ak yooyu maanaam résistance daal mën naa am te violence du loolu mën naa ne te Sëriñ Tuubaa jàngale na ci aw yoon bu baax a baax danañ jàngee ci ak dundam mën a jéggale ak di suuxat jàmm te yàlla rek tax nag te yàlla rek tax doo jéggale ngir da ngaa am pexe doo jéggale ngir ay calcul wala loolu waaye dangay ngay jéggale te yàlla rek tax xam ngeen suñ borom suñ bi wax na ci ay mbindam ne keroog bi mu génnee Mbàkke Baari suñ borom da ko boole ci ahlu badr ne leen nañ ànd ak moom te saa bu ko noonu sonalee ba ñu war a réagir nañ ko def buñ ci waree dugg waaye sëñ bi dem na ba ñëw mës fa jëfandikoo ahlu gis nga da koy sax fa woon sa amri li mu xew amri ma ahlu badr bilam ci raay jëfandikoo loolu mooy ku bëgg jàmm dëgg-dëgg am ngànnaay te nangoo ko jëfandikoo mën a jéggale lool tey jéggal te yàlla tax gis ngeen lim daj nga xam ne biñ ko yóbboo daat nee na tey sama kër yi wéet na tasaare nañ maag sama jabar bi teqale nañu te lan dong ma ko yóbbee موي لي ماي ليغال يوني فاس قصوري خلت والاهل عني تفرقت لمدح الذي عنه مديها قصير تيونا يي متي مو دكو خم دا سين توبا جامبات كو دم باي وقت وا نينن كات توي نين جامو يالا بي توي نين توي نين كو تي لو خامني تيغولن كو بن دغ توي نين كو خامني لو فاي ген نين كو ديغ بيت سي نجاوتام مو دك تي تيونا يودول جيخ تيغولن كو فن ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخب أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وخاصاه البلاء diggante boobu daj na ci lu ne ci ay mettit ak taksar daan leen waaye loolu lépp bi mu amee it li waji man anhu afa ankum afa jéggal na leen ngir yàlla ngir jëm yàlla topp leen dara nee na li fi des daal mooy mi ngi ñaan suñu borom rek mu defal ko li mu bëgg waaye jéggal na leen te yàlla rek tax waxoon na ne sax tolloon na ci mbindam foo xam ne suñu borom xamal na ko ne ko ndax nee na bi xasaay di jihaad yi mu doon bind di moolu tubaabe àggoon na ci suñu borom xamante ne ko boo bawul mbind mi kuy ab yéefati na ci kaw suuf bu tuubu dina alko mu jéggal leen bàyyi muy law an na nii lam atruk muy euh, law an na nii lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil isaaba lamaata bil wabaayi kullu kaafiri in lam yatubu li ilaahi lgaafiri lakin afawtu an jamii nnaasi li wajhi rabbin muhlikin xannaasi nee na suñu borom mujj na ma ahmadu boo bawul mbind mi kuy ab yéefat bu tuubu dinaa mu ne kon jéggal na leen te yàlla tax loolu ci bind yi wala jëlee ci bindu sëriñ bi la ci mën a jéggale moo tax fu ne dafay seeral suñu borom ne ko jéggal naa leen te yàlla tax washhad bi afuy anil balaaya afawtu anil aadaay turran li wajhi man nafaahum li gayri samaran lasu alfaw afawtu anil aadaay ma naa leen ak xol bu sedd guy jéggal naa leen te yàlla rek tax fu muy wax jéggal naa leen sax faaw la ci boole suñu borom xam ne yàllaa tax mu jéggal loolu bind la kon bu am solo moo tax gis ngeen liñ bindoon bi mu demee ba ñëw ne ku gis lii kat na xam ne ki ko bind jég jéggal na képp ku ko mas a tooñ te moom du ñaan yàlla ab tooñkat mi ngi ñaan suñu borom mu jéggal mboolem ay taalibeem di xamal ñëpp it ne lim yéene taalibeem yi moom la yéene mboolem jullit ñëpp loolu suñu tubaab bind na ko. loolu bëgg jàmm foofu la ma neen ku ma naa la du ma la ñaan yàlla sama waa kër li ma leen yéene moom laa yéene mboolem jullit ñëpp loolu bind ngi ci ci ci ne kon. jullit ñëpp ay mbokk lañ yéene yow jullit ñëpp it ñëpp a ko war def waaye rawatina ñu bokk ci waa kër sëriñ bi yéene ñëpp jàmm ji amul fu mu yem waxtu waa ngi sori waaye amul fu mu yem gis ngeen daarul mën naan li mu doon métti métti bi ñu ñëw di ko jàpp si mi ngi génn xasida euh, rabbi bi maaye saxat di wax ci biir euh, yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadid irham jamii al wara yaa haadiya yow suñu borom yow mi borom nguur gu mat yow mi nga xam ne weesu nga fooy fooy fayantoo maa ngi lay ñaan nga yërëm mboolem bi def yëpp loolu euh, bëgg jàmm foofu la mën a yem waaye nag lim doon bëgg bëgg jàmm yi beneen bind nga bu ñu mën a jël ci ak dundam mooy am fulla Sëñ Tuubaa ku am fulla loolu ci boppam lim doon lewet lewet mën a nëbb mer du topp kenn teewut kenn du ko ñaaj li mu nekk nekk ci biir liggéey fulla ji jamono sa saa su ne day feeñ moo tax suñ ba nett na ne mu nekkee Gabon am na benn waa ju fa nekkoon doon ko fontoo di ko dëngee am ku ñëw ci moom sëñ bi ne ko daal damaa bëggoon kii nga xool noo maslaa ak moom rek ndax ni mu lay def daal gënut ma bëggoon rek nga maslaa ak moom nee na bi ne ko soxlawu ma maslaa ak moom ndax jaat gi mu noppi ne ko laa li annahu xaruba tamaamu naqsi taabutihi lazi yuqbaru bihi waa ji nee na ay fan yu néew lañ ci teg waaja waaja feebar faatu dafa dee dee ci saasi nee mu ñëw ci sëñ bi ne ko man daal sa mbir yéem na ma ndax waa ma doon wax ñu ngi noonu ñu def ci ak keesit néew jëmee ko Dakar faatu na yam xutuhu yam xutuhu sultaan wan nasara min yow mi fii taabuti xabrin saara amut sikk sëñ Tuubaa ku ko ku ko xëy tooñ bu yore da nga koy gis amut sikk gis ngeen bi muy dem daanaa ci fulla ji Merlin mi nekkoon gouverneur général xam ngeen sëñ bi woo nañ ko ay yoon génn ndax amul amul ndigal Cheikh naa wul da benn naat mandal nee na bi mu jubee Merlin mu nuyu ko moom Cheikh mooy Cheikh na bi ko sëñ bi jubee bëggoon nuyu Merlin da ne non bañ na du nuyu moo xam bu ko nuyuwut bi mu ko nuyuwut ah moo xam di sëñ bi sëñ Tuubaa gi ko nuyuwut yaa na bi mu ko nuyuwut seex naa neen bi mu ko nuyuwut sëñ bi dafa wax ci kaw ne alhamdulilahi alladi mana hada al kafira min an yamassa jildi jildu min an yamassa min an alhamdulilahi alladi mana hada al kafira min an yamassa jildi jilduhu ne sant naa yàlla mi nga xam ne dox na sama diggante ak yéefar bii ba yaramam laalul sama yaram ca kaw nen la ko Cheikh naa nee na bi ñu génnee sëñ bi da koy tooñ naa ko yaa Cheikh naa laxat baa laxta fi di axtisaar naa ko Cheikh naa nag ni nga wàcce sa bopp ëpp na nag yii kat ëpp na waaw Cheikh naa foofu la toll moo tax loolu di wane ne fulla ji sëñ Tuubaa li muy baax baax li muy bëri bëri yem ne fulla ji moom kenn du ko ñaan ci loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci moom ci la bokk euh, ma njëkkanteeg waxtu tuuti rek bokk na ci bind yi ñu ci mën a jëlit mooy sax ci say gëm-gëm ay sax suñ tubaab mës a soppi maanaam li mu déparé woon ba ni mu fi jógee mës a soppi ba mu fi nekkee jamono si moroon sëli ba ni fi si moroon sëli jógee ba ba ni mu fi jógee moom mës a soppi gis ngeen jamono yi si moroon sëli xam ngeen xasida xaalu safi woon li ko indi woon mooy ay nit yu mu romboon rek dëkk mu suñu moroon sëli demoon di fa gane muy dem di jàngi ànd ak maam Thierno bokk ab téeréer bi mu leen rombee nee na benn waaye xool ko am kum ne xanaa kii mooy seen mbokk mu wéré di mu may dégg nee na kooku mbokkum suñu kooku nag amum ah, daal ni la mel ginnaaw bi lañ ko wax sëñ bi ci ku la romb rek bokkub téeram bi jànge nga ne kii wérut ci la binda xasida googu xaalu safihun li safi anhu basari wa ragbati an zawil asiani fil bashari ba xasida su dee ndof mooy sax ci wird sax ci borom ak di ko xalaat màggal bu dee loolu mooy ak ndof sant naa yàlla wax damaa dof loolu mu sax loolu rek nga xam ne xam-xam dong moo ko yitteel li nit ñi nekk yitteelu bi fi si moom seen nekk Samba Lawbe Fall àggoon na ci jabaab la jor sàkku ci moom mu ñëw féete ko fi si moom seen féete la jor mu jox ko ngànt ne ko doomi jullit yi ñëw di sàkku ci xam-xam sama ngor mayuma ma leen ma baleen fi da ko wax loolu ngir rafetal rek ne ko sama ngoor mayuma daal ma baleen fi di ñëw di di di di ànd ak yow sax ci loolu loolu noonu moo wéy bi fi suñu ma doon seli jógee ñu waxoon ko nañ dem ci la jor mu jox la place bi mu ko joxoon mu joxe ngànt ne leen man laa azabu ila al umaraay wala argabu fi fi dunyaahum wala atlubul karamata illa min allahi rabbil arbab ne leen man du ma dem ci buur yi seen mbir yitteelu ma te teraagal suñu borom dong laa koy sàkko mooy li muy wax xaalu li yarkal ni abwaabu salaatini taxus jawaari sa tuxni kulla maa xiin fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wala suraadiya gayri l ilmi wa diini wala su arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini nee nee nañ ma kat naa jàng jëm ci buur yi waaye ma ne leen nag man yàlla doy na ma doyloo naa ko xooluma lu dul suñu borom wutuma lu dul moom ba wax waxte mujj ga euh, nu mu koy waxee sax euh, in kaana aybiya zuhdun fi xutaami humum fa zaaka aybun nafisun laysa nii su fekkee lii ma wan ginnaaw poñatum àdduna mii moo tax ñu di ma sikkal sikk soosu man bëgg naa ko amul sikk bëgg naa ko daal euh, loolu mooy rek ni sëriñ bi doxee nga xam ne bi mu ne bërit àdduna dafa daw wut si ko mu wan ko ginnaaw mu dox ba yàgg àdduna كير كير نيوات تيب تي كانام مون كو غينا بان كو فالي موي لي مي وقت مونا وي رسول اقبلت الدنيا الي قبل وبعضها فزال عن الكم موتاخ غيس نين تي يارم بي شيخ فال داجيك سيغ فال تي كير سيغ ماغ رضي الله عنه نانا سيغ ماغ بي جوخ لن داب دوك سي بير نالين نان خيولو شيخ فال نانغوتو خيول نا سيغ فال دو خيولو با نوبي بي سيغ ماغ بي غيناتي دي لات موي ген bi seigne fall di xelu bu yàgg mu xool cheikh ndax am na lu soppiku ci moom nee na Cheikh ne tekk ba yàgg mu ne ko su fekkee am na lu soppiku ci moom de xanaa karaw gi la bu njëkk da ko daan bàyyi muy sëq te léegi da koy wat ne ko loolu daal laa xam ci lu soppiku ci moom sëñ Fall ne na bi ñuy wax loolu la sëñ mag bi génn ñëw daal ne xewlu ngeen mu ne Cheikh Fall nee na sëñ Fall ne ko nee na naa naa xewlu ba noppi daal sëñ bi ci baatin bu rëy mu ne ko tey Ibra Fall moom de Mbàkke Kajoor bu léegi dara soppiku ci moom fës na ci bu baax sëriñ bi euh, ne naka jekk ci loolu la sax mësta sa ku ñu ko xam ñëpp loolu lañu wax mës sa soppi mës kon bind ngi ci ne nit ki lim xool ba xam ne lii mooy dëgg mooy lu baax dara war ko cee jóge bu juróom wéet moom képp la bu juróom wéet moom képp it da cee war a sax ngir ñu njëkkanteeg waxtu wi ay bind ngi nii yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci jëflante bi war a am diggante nit ak ay mbokkam mooy ñàkk a say mbokk li siñ bi waxoon ne nit ku ne mën naa ñett mbokkam waaye mun leen ñett nit ku ne mën naa ëpp ay mbokkam waaye mën naa ëppale ay mbokkam waaye mënu leen ëpp mën naa gën ay mbokkam waaye mënu leen a génn mën naa raw ay mbokkam waaye su àndut ak ñoom aw doxinam du rafet moo tax gis ngeen kooku ñëwoon ci moom ku sant Mbàkke ne ko ñun dañoo jaaxle ndax daañu dañ ne yow amoo mbokk te ñun yow dong lañ am sëñ bi joxoñ ko ne ko bu ma ko waxati gisoo kenn ko am ci mbokk kooku commencé képp ku ñaan sama mbokk la ku ne lam baax la képp lañ bokk ma ak moom bu ngeen xoolee ci bataaxal yi muy bindanteel ñi mbokkal da ciy fësal lool mbokk gi mu amante ak ku mel ne suñ moo jaara ilaykum ayyuha shaqiq a cheikh Mouhamad Jaara yow mi ma bokkal ñaari waajur al amu ibrahim al amu cheikh ibrahim muy sëñ Mbàkke Kajoor yab na amati wa xaali yow sama doomi nijaay yow sama sama doomi bàjjen sëñ Mbàkke Buso إلى أخيه الذي لم يخالف في صغره ولا في كباره ولا في كبره إبراهيم ابن والدي لي مانكو بين سما بوك ميغا خامني تي نداو اك ماغا مسو جوي اك مان ابراهيم ميغا خامني ak بوك وين واجي روغو موي مام ñoo غيس نين waajur بوسو اي ايو الشيخ والخل والخال يا سما bu سما نياي سما سما wal ngir jàng na ci mom gis ngeen bi muy bind am na ñu muy bind ya ikhwani wa asari yoy yep day wone ne. sëñ bi comme ci bind ñi ñi may wax ñëpp doo ci gis kenn ko bind ab bataaxal sëñ bi moom ba di ko tudd mbokk gi ndax ñoom ab sëriñ lañ ko jàppe xam nañ ne ko sëñ ba nangu nañ ko waaye moom moo leen bëgg a wan ne mbokk gi dafay nekkoon laata lii dañ ko war a sàmm wéer ko kon loolu bind ngi ci ci ne nit nu mu mën a mel ci xam-xam ci alal ci daraja ci barke ay mbokkam da leen war a fonk te war leen a xet loolu bind la boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel euh, bokk na ci bind yiñ ci mën a jël ba léegi it lii moom naa ko tëb rek ndax xam naa ne waxtu kii na bii mooy ñi nga xam ne ay sëriñ lañ te duñ suñuy sëriñ nu ñu leen war a jàppe sëriñ yi ci lislaam te duñ suñuy sëriñ loolu sëñ bi jàngale ci ne ni ñu leen war dox ak ñoom rek bil i'tiqaadi taam wa husni zanni wa adami al-i'tiraad ñett yooyu ñu gëm leen maanaam dëggal leen rafet jot ci ñoom te bañ leen a dingat bañ leen a dingat dootu duñ suñuy sëriñ moo tax gis ngeen ci Masaalikul Jinaan muy muy wax فكل ولد يريد المريد لحضرة الله ولن ولن يحيدا سواء انتمى الى الجيلاني او انتمى لاحمد التجاني او لسواء ما من الاقطاب كلهم قطعا على السواد ني ويرد ييب بوتي نيت كي ياب تانك سي ساتي مونكو جيمي سيني بوروم سيرين سيب سي دغ لاني تي لو باخ لاني سي لو باخ لاني دون واتي يموت سي لول موم سيني بي واي لا فا موجو صاف وقت طالبين ني لين فو نين غيس اك نيان ولا ود بو جوغي نيت كو باخ ماينا لين نين ديفاليكو loolu ci seigne touba duma ne ci mom dong koy dégg waye néewaa amna ci tariix xamna sax bo ci nek di yenn yi dañ la koy terefat te loolu luñ mën layal la luñ xam la waaye moom daa wax sax ne len wa amma ahzabul aqtab wa nawatu salihin fa azintu lakum bi isticmaali fa azintu lakum jamian fil amali bi ma tayassara bi ma tayassara lakum minhu minha hayth wajadtumuh ñaan yi jóge ci sëriñ ci ak sen ahzabi lu ngeen ci meuna a mayna len ngeen jëfandikoo loolu moy deug deug ubbi ko deug degg yi xool lislaam te bàyyi parparloo ci biir lislaam bi yemul foofu wit yëpp da ko doon jëfandikoo ba mujj wax ne ñi yori tarixa ñëpp gërëm nañ ko radiya anni sibtuhul jilaani alayhi ridwaanu allazi alaani radiya anni sibtuhu abul hasan alayhi ridwaanu min xalidul hasan radiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu min bidil jaani ne ñett ñooñu gërëm nañ ko ñooñu bu ñu ko gërëm mooy ñi yor tarixa ñëpp gërëm nañ ko ne ñi suñ borom gërëm ñëpp gërëm nañ ko ne xulafa al arbaa gërëm nañ ko radiya anni xulafa al arbaa xustu ridal muqarrabin al mutbaa ne suñ borom waa xulafa arba xulafa rachidun gërëm nañ ko ñi suñu borom tànn ñëpp gërëm nañ ko moo tax loolu bind la boo xam ne war nañ koo jëlee ci sëñ bi ci nekkat da ngay am sëb sëriñ jàpp ko waaye sëriñ sëpp nga nangu leen te bañ leen a diinat bind bi it mooy suñu diggante ak suñu mbokki jullit yëpp rek ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom fu ñu fu ñu féete li ñu war a jàpp rek mooy li suñu bi waxoon ne al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat jullit ñëpp ñu góor ñi ngi jigéen ñi samay mbokk lañ wax ñaan suñu borom ne ko nako may mu mu yene ñep aw yiw wa agrina bi hubbi kulli muslimin wa najina min sharri kulli mujrimin nak ma def ma bëgg jullit ñep yéggi fofu sax ba sol bu avocat ci kanam suñu borom bi défendre jullit ñi wa najihim wa fihim wal tusbihim bihim wala tuwaaxisum bi kusri zanbihim ba bay di jax ñi kat yëpp bu leen top fa innahum way naa sawka yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad bu ñu la mooyee it seen xol yi moom yow képp lañ gëm xam nañu yaay yàlla yaa fi ne buñ la mooyee it dañoo topp seen bakkan rek kon jéggal leen ne ko nag sa yërmande gii boo leen ko joxee du la wàññi dara te ñoom buñ ci jotut seen dara lu baax kon maa ngi la ñaan nga jéggal leen waa tuwaaxisum bi maa laa yanqusuk wala humu habil lazi laa yanfaw àgg ci wax suñu borom ne ko kat laysa li ummati si siwaaka yaa waaxidan ak sartali jadwaaka ne ko kat xeetu yom bii amuñu kenn ku dul ma waxin bi muy wax ak suñu borom sax da ngay xam ne dafa am tawfeex yow mi nga xam ne kat sa xéewal yi bari na ci man ba mun ma koo lim maa ngi lay wax na nga gestu xeet yéen saa sallam gestu leen ndax amuñu ko dul yow suñ tubaa ni muy ñaanee suñ borom sax ndimbal da ci am da ngay xam ni ñaan gi buy noppi moom ñaan gi nangu ndax fi mu ko yaaru shakawtu umuri wa zanbil azim li rabbil xadir al gafur rahim inni aqulu wa inni al yawma zu xajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali bari na bari na yum ci wax fa inni la imun asirul hawa wa asin walakin ilahi halim ba buy wax ak yéen sax sax yaa sayyidi yaa bughiyati yaa yaa junnati haasi mubayaatun ila yawmi liqa yow sama sopp bi yow sama ki ma sopp maa ngi maa lii kat ab jaayante la maa ngi ko jaayante ak yow ba bañ la jëm ak yow nga xam ne fi muy buy wax sax da ngay xam ne kii daa am tawféex ci anam gi muy waxee bi ma ciy mujjee rek mooy ay bind yoo xam ne nag kilifa. kilifa war na koo am ci digganteem ak ñim yilif bi ci jiitu mooy kilifa gune bu bu jiilifee ak njabootam war naa am seen yërmande loolu danañ ko jàngee ci dunduk sëñ bi yaa leen jaalil muridina ma fi xisnika alxasin wa shamla maa suñ borom murid yi maa ngi lay ñaan nga dajale leen nga boole leen ñu nekk benn aar leen te buñ teqali ko yërëm leen bu ñu amee ay jafe-jafe lu mu ci man ko ci def gis ngeen ba mu nekkee ca Gabon suñ Lampagne Seck ak euh, suñ des ñaar lañ am na fu ñu leen yóbbu Luango ñu bind bataaxal yónnee nekk suñ boobu suñ baa ngi Gabon di ko wax ne ko tubaab yi dañoo indi fii wax ay wax daal di ko wax seen mbir sëñ bi nee na bi ma jotee seen bataaxal rek azlamat alaya dunia wa takaddara waxti shafaqatan lahuma nee na àdduna dafa leen dem këriis ci man ma nekkatuma ci jàmm daal ndax euh, yërëm naa leen ndax xam naa tubaab bi bu baax a baax te xam naa ne mën nañ leen def lu tax seen ngëm ak seen pasos seen borom am lu ci sëkk nee na dafa maa fekk may bind ak xasida ci saasi damaa soppi ni ma doon bindee ñaanal leen yaa xayra gaafirin zunuban makka wa xayra xaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa anhum maa yajuru shakka yow miy jéggale bakkaar yow miy tinki jéngi tinkil jéngi jullit ñi te musal leen ci lépp lu mën a indi ji xijaaxa ci pasos bi ñu am seen diggante ak yow loolu kilifa diine daa am boobu responsabilité bu ko yëgee ak bu ko yëgut yërmande ji mu war a am ci ñi nga xam ne da leen a na leen da leen da ak nosu sëñ Tuubaa jàngale na ci lu baree baree bare dëkk yi mu sos jëwlin yi mu doon sanc yi mu doon yi mu doon samp maam Cheikh Anta Fee Daaru Salaam sëñ Mbàkke Buso bi mu dem Mbàkke Baali mu bàyyi ko Touba borom daaru moo ti yore daaray xam-xam ji sëñ Daa Abdourahmane yore daaray alxuraan ji bi muy dem ci géej gi mu jël jaboot gi teg ko ci loxol maam Cerno yooyu nosu googu noonu loolu bind la war a jàngee ci bi lim bëgg mu leer ci moom boo xoolee matlabul fawsé nga xam ne kii lim bëgg leer na ci moom maanaam mashron bi am na ruya vision bu leer am na manhaj muy méthode bi mu koy jaar xam na ko am na waax yi tamit ci lim soxla ngir mën a ngir a jëf loolu waaye fonk diisoo bokk na ci li kilifa yi war a jàngee ci dunduk sëriñ bi mooy fonk diisoo ak ñi ngi yëlif donte yàlla leen yëlif li suñ bàkk bési di wax na képp ko nee nañ képp ku bëri li muy diisoo lam yaadam inda sawabi maadihan wa waa alxata i angira képp koo xam day diisoo bëri lu muy diisoo bu jëfee bu dee noonu la nit ñi danañ ko tàgg bu juumee danañ ko jéggal ndax koy diisoo la sëñ Tuubaa gis ngeen ne école ba mu yox franco mouride sax bi ñu ko bëggee ubbi njaareem dafa dajale mag ñi laaj leen seen xalaat ci tënk rek xalaat bi sëñ Mbàkke Buso lañ mujj jël bi mu ne nangu nañ ubbi fi daara ji waaye ñoom ñu jàngale ñun ñu tubaab tubaab bi di jàngale ñun ñu wéy di yar loolu ubbi woon mooy ku yilif ak njaboot war nga di leen àttu saa yoo ko jaree saa boo leen war a wax dëgg nga yaar ci digg bi nag xam ngeen ni suñ tubaa déclaration bi mu njëkk a def Mbàkke Baari fit moo ko may ndax ñi fi nekkoon ñëpp xam-xam moo leen fi indi woon mu xëy xëy ne képp ku fi xam-xam képp indi woon man ngaa yeewi ko ñi ëpp dañoo dem ñun ñoo fa des sëñ Basiir nee na bi mu nekkee fii ci tubaa mas naa yónnee Daaru Salaam ku ñu wax sëñ Ablaye ne ko boo demee neel fere àdduna képp indi mën naa dem ku fi àllaaxira indi mën naa dem ku fi aduna ak alakhirah indi man nga def ku fi yalla kep indi man nga ngaa toog ku ko waxoon tey jii bu suwa do gis kenn ndax mbolo mi kenn nek fi ak bindu nek fi ñooyam ci mom ci deug rek lay andal ñoom loolu manam di wax lu leer buñ ko waré wax loolu bind la ci kilifa wala jangé a jàngee ci Cheikh ba ci Cheikh Khadim gis ngeen rakki lab Joor yo jébaloon Biram ko bi mu ci mom da ko ne la nga jëlé won ci xarab sam saade da ngay dem delo lepp ma doga a nangu njébal boo ko defut ko nangu ak li ci top lepp nak ci ay xëccio ki yef yëfaan ba la jox sax xelam nekkon na ci dal ci ko señ mujj bi mu am sens dal ci kaw yooyu yëpp day wane ne naka jekk li suñ bàkk bu soo waxoon ne wallahi ma ahna naa xattu yuqiru ala al manakiri yuqiru ala al baatili aw yaskutu ala al manakir laa xaifan wala gaafilan ne suñ tubaa ñun ñu ko xamul mësuñu koo gis mu mu nangu ab safaan wala mu noppi ci naka su dul noonu du ci noppi ngir ki ko def da koo jege du ci noppi ngir liñ jëf dafa tuuti saa bu ñu defee naka su dul noonu ci saas day aatu su mel la mi jool mi ngi li ne am na bis ci njaareem waa barsàq yi toog am benn soxna bu leen seet si si siñ baa ngi leen dégg ñu ngi ci am soriwuñ ko lool soxna sa di jëw di jëw di jëw di jëw ba yàgg rek siñ bi gëdd leen nee na bi mu tàmbalee jëw moom waa barsax yi dañu dañu waxatuñ ndax xam nañu siñ bi da koy bañ waaye nee na siñ bi dafa ju gëdd leen rek ñu daw ñoom ñëpp ñëpp daw nee na siñ bi basan gi ndaw sa toogoon da ko indilul taal ko ci keroog ne basan gi mu toogoon nañ ko lakk loolu lu kawe la ci jëw jëw maanaam jëw ni ko tuutalee léegi ak moom mu àgg ko foofu basan gi mu toog sa la ko taal loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci loolu la bokk bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa ak diine ak kilifa aada ñu war a jëflanteel mooy noonu suñ bi waxoon rek ni mu doon jëflante ñoom mooy di leen laabire di leen wax dëgg di séq ak ñoom jàmm ngeen jaboot gi yéen a ko séq waaye saa bu leen waree laabiré mu laabiré leen bu leen bu leen di laabiré mu leen fàttali leen si ba ak leen fàttali seen ëllëg ku xool bataaxal boobu mu yónnee woon ku mel ni Ahmadou Makhourédia wala bi mu yónnee woon Sàmbalaw bi Jaay loolu fees na ci lool lool lool bokk na ci bind yi ci war a jële mooy kilifa kilifa njaboot kilifa akum njabootam rek nu mu war a jëflante ak ñoom mooy li sëñ bi bataaxal bu mu bindoon yónnee ko mag ñëpp doon bind ne nañ ko jàngal ndax da ko bëggoon a jàngal te fekk ko fi ne nañ ko jàngal soxna Fatou Tutu Diop gis ngeen sëñ ma Lamin nee bind na juróomi kaamil waa barsàq yi daanaka ñoom ñëpp noonu lañ mel loolu lépp di wane ne daana yittewoo lool njaboot gi ñu di leen jàngal ak ñu am xam-xam ñu xam seen xam-xamu kon su ma bëggee tëj rek ci juróomi minute mën nañoo wax ne rek euh, bind yi ëpp solo daal yi ñu mën a jàngee ci dunduk sëñ bi mooy jullit ñi war nañoo fonk mbokk jullit gi dox seen diggante war nañ ko fonk war nañ ko bàyyi xel xam ne suñ borom a leen ko boole te lu ñu war a sàmm la jullit ñëpp ay mbokk lañ ndax loolu suñ tubaab di wax naan xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalxa yaa man jaddahum badaa nga xam ne day jéggi sax xeetu yu saasam di wax ne mbindeef yëpp rek yow mi nga xam ne seen maam aadama yaa ko bindoon na nga leen yërëm ñoom ñëpp kon loolu bind la ndax am na fu muy waxee naan chaxalat ni ibadatu rabbil alamin wa xidmatu xayril alamin wa lishtigaalu bi masaalihil alamin an nisaa'il alamin jaamu yàlla liggéeyal yonent bi salaam ak jariñ bindee fi ñett yi ñoo tax ba taluma di mbiccoo ak di mbaaloo loolu bind la ci ab murit war naa fex boo tam jot war nañ cee jàngee niñ ko waxee sànq nit ku nekk mu dégg jamonoom xam fi jamono toll muy doxee noonu ndax li Sëñ Saaliw waxoon nañ àdduna ab tëli la ab tëli la tëli bi nag ni nga ko fekk rek noonu nga ci mën a dawee boo fekkee ay pax ci ay pax ngay daw boo fekkee mu tàlli ci lu tàlli ngay daw boo fekkee ay doodaan ci ay doodaan ngay mën a daw kon jamono june ne it ñi xam ne mbir yi dañ ko war a dëppale jamono wàññiwu ci dara nañ tënku rek ci njàngaleem lislaam wattandiku lépp lu jëm ci parparloo ci wàll pas-pas ak diine ndax sëñ bi ne woon na man itaxasa inna wa innama fala yuaadi muslima maanaam inna cheytaan lakum aduwwun ak innamal muminuuna ixwa ne ñaar yi ku ko bàyyi xel doo noonoo kenn mooy seytaan li alxuraan wax ne seytaane seenum mooy seenum noonu ne noonu bi leer na ak li mu wax ne jullit ñëpp ay mbokk lañ ak li mu wax ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah képp ku ngeen gis muy wax laa ilaha leen ko noonoo na ngeen ko def na ko def mbokk كونوا محبين كونوا محبين الخيول لجميع خلق الهنا المقدم البديع بيند سيغ بوروم ييب نانغي لين يين ييو تي نانغي لين يين اك باخ وار نانيو جانغ سي بيندوم سي دوندوك سيرن بيت جيكو جو رافيت خيخ نياك خيخو غرير خيخو غرير سيغ بي لم سامبون سي اي دارا لم موتون سي اي تيري خام نين دارا جي سيغ باكي بوسو نينا سيغ بي لم سي داجيوون سي اي تيري كين موسكو غيس يوخو سي غوخ بي muy daara ji nga xam ne bëggoon na ko indi fii ci Touba te Cheikh moom Mountakha ubbi ko nii muy lu am solo ñuy ñaan mu mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom sëñ Mountakha ba fekk njëriñul lu bare bari ci daara ji daara joojoo yeneen ñi fi nekk yëpp muy azhar mu yoneen yëpp yooyu dafa dugg ci li nga xam ne lu sofu la ci bind bi sëñ bi jàngale woon ci xeex ak réer ndax loolu moo ko fi indi woon muy inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa mooy ci xam-xam ak jikkoy rafet ci lay ci lay ci lay liggéey yàlla su ma doon tënk rek ndax waxtu wi sax maa ngi jàll benn ba ñaari minutes mooy ne daal dundu Cheikhul Xadim gi dund ku barkeel la dund ku fees dala njariñ la dund goo xam ne kenn mës sa gis lu ni mel ci njariñ ci yiw ci fees dell ak mbaax ci fees dell ak ay bind yu ñu mën a jariñoo loolu taxoon na ba mu waxal boppam ne xustu xayaatan laa tura li xayri mujizatan baanat li usni xayri dund gii ma suñ borom defal gu ni mel kenn dootu ko gis ci kenn ne loolu nag suñu borom defaluma ko man waaye dafa bokk ci xar baax yi mu defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ci bind bu ñuy jëlee ci dunduk sëriñ bi ci la bokk ak li mu waxit ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp ku am toq ak toq ci ci ci ci xam dara ci suñu borom ak ci ndimbalam xam nga ne man ci kéemtaani suñu borom yi ci laa bokk wax ne lastu ashukku abadan fii kaw nii jaaral badii ajaban lil kaw nii du ma sikki sàkk mukk ci ne dekale suñ borom la te damay sax di doon kéemtaan ci mboolem bi def yëpp Sëñ Tuubaa moy kéemtaan go xamne loko gëna xam mu lay gëna yem yéem Sëñ Tuubaa loo ko xam mu lay gëna yem portable bi bi mi doga a génn di photo da doon yem ñëpp léegi ken ñëpp xam nañ ko min nañ ko waye Sëñ Tuubaa safaan bi la loko gëna xam diko gëna gën jege mu lay gëna yem kon nak li ci am solo rek moy ñu xamne dal suñ borom bi mi séddale ñun ñi bokku ci waaka kër sëriñ bi sédd nañu wuñu te sédd nañu lu reuy sedd nañu cër boo xam ne ku ko bokkut ak ñun am na lu ñu la gañee ndabul suñ Tuubaa li ku ci sukk dara rëccu la kon nañ ko jàpp ak suñu téeméeri loxo bañ cee dellu ginnaaw xam ne euh, koo xam ne boo taqee ci moom texe àdduna ak alaxira euh, bu la ci suñu borom boole war nga koo sant niñ koy sante nag mooy defar suñu jikko kenn ku nekk ci ñun fexe ba mel melokaan woo xam ne ku la gis xemmeem sëriñ bi loolu rek mooy li ñu mën a defal sëñ bi sëriñ bi amul lenn lu ñu ko mën a defal fi mu ne lu dul defar suñuy jëmm ba ku ñu gis xemmeem sëriñ Tuubaa te loolu kenn ku nekk ci ñun rek mën na ci dara li sëñ Abdoulaye waxoon ne ku ne da ngay jàpp ne sayu mat la kenn attunu say wi waaye ku ne da nga ci yor genn matt goo xam ne booy tëdd gàdd ko booy taxaw gàdd ko booy toog yor ko booy nelaw gàdd ko ca kaw waaye bu laal suuf mukk mu li sëñ Muntaxa waxoon ne bu laal suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom Cheikh mamadou Muntaxa ba yéene yi mu bëgg defal sëriñ bi yëpp mu àggale ko ñoo maa ngi siyaare kilifa yi fi teew yëpp di ko tàmbalee ci suñu wajur sëñ Hamza Mbacké ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp wax ji xam naa jaxasoo na li ma waajaloon it wax dëgg euh, matut àggut xëy na it mbokk yi niñ ko doon xaale waroon naa gën nii waaye rek moom mi ngi noonu euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah